ñoo ngi am mbégte di leen nuyu di leen ziyaar ci turu jamhiyatu xirriji daaril maarifil islaamiya kon mbooloo mi nga xam ne ñoo jaaroon ci daarul maarifil islaamiya doon fa sàkku xam-xam ci seen sëriñ seen kilifa as sayidul ustaas fadilatu cheikh alxaaji mbàkke jaxate te ñu gën koo miine ci sëriñ as jaxate kon mbooloo moom ñoo teew fii tey ci këram ngir di ziyaar ak di jéem a delloo lenn ci njekk li nga xam ne euh, sëriñ alxaaji mbàkke jaxate lebal na leen ko ci xam-xam bi nga xam ne jox na leen ko ak yar bi nga xam ne def na ko ci ñoom ci fàttali nag mbooloo moom mooy mbooleem koo xam ne mas naa jaar ci jamhiya bi ci daarul maarifil islaamiya la ko tàmbalee ca ba sëriñ Fàllu ubbee jàngukaay bi ci 1963 ba tey ji ci 2023 di juróom benn fukki at yoo xam ne sëriñ Alhaaji Mbàkke Jaxate ma nga ca barab boobee di fa jonjonte ak taalim wa tarbiya te ay génération yu baree bari jaar ci loxoom kon tay di Alarba ñaar fukki fan ak juroom ñatt ci wéru ramadan ci atum 1444 ci hijriya Depok le 19 avril ci 2023 kon ci la mbolo moomu fi kërëm ngir fasiyene amal ab ziar euh, mu melne kon bala ñoo dugg ci waxtaan wek programme bi dañuy ubbe jotaay bi ay ayat qur'aniya yo xamne serigne mahmoudan bu so moñ koy dégtal bu noppé nak ñu doora ñew ci programme bi ak ni muy doxee kon ak cheikh mahmoudan tafadal أعوذ minash من rajim shahidallahu annahu la ooh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 ba naal yéen yi am ci àggal naal yi maam ya baax yi suñu borom defal ko tawfeex ñëpp fekk gannaaw damay bañ a guddal comme di suñu Moustapha waxee di sopp ba tey di ñaanal kilifa suñu kilifa gu baax gi mi alxaaji Mbàkke Jaxate nga xamante ne moo waral jataay bi moom te ñu ngi koy ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala gën sàmm gën koo may gudd fan ak wér ba yàgg ay at yi at yi at ko def ay at yu bëree bëree bëri waxee moom da jàpp ne ab dong bu taxaw ci kanam ay osatisam jàng ba noppi di muraajan waaye lu jàggee ne ab ustaas wala aalim bu taxaw di muhaadir déedéet kon ne jàpp ni ab dong la boo xamee dafa taxaw ci kanam ay ndonga ay ay ay osatisam di muraajan lépp loo xamante ne jub na ci rek ñu xamante ne ci ne osatis ay lépp ci dëng ñu xamante ne gàtt lu dong bi doon wax la euh, comme Maodo bi nga xamante ne fas yéen nañ ko waxee waxtaanee comme ni ñu ko baaxoo defee chaque année bu xamante ne ñi ngi jub ziyaara bi tànn benn Maodo waxtane ko di am bekti lol nak buñ ci bolé am bekti lol ndax xay na ñu ko mëna waxtane bari na wa buñ ci tane ngi ñu bëgg ànd ak mbokk yi ko lol mbekti mo ray rëy rëy lay lol ñu mu melni mawdu biñu Maodo bi ñu fas comme ni ko suñu Moustapha waxee mi al majal at taalimi fi Sénégal min bidayat al xarni al ashrin ila al xarni al waaxid wal ashrin majal sa Touba namuzajan moy commencement majaalis taalimi yi nekk ci li ko dalee ci alxarnul ashirin mooy fukk ñaar fukkeelu seekal ba suñ jonni jomono tey jii nii kon loolu yi fas yéene waxtaanee waxtaan wi nag dañ koo fas yéene def ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi dañ ko fas yéene def ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi danañ fas yéene wax euh, lan mooy kan la lislaam dugg Sénégal ndax majaalis yi ñu jàng du jàngee dañoo jékki-jékki rek mag ñi di am na yoon yu ñu jaar ba dugg Sénégal bu ñu jógee ci loolu ci pàccum ñaar bi dinañ ñëw ci al majaalis at-taalimi fi Sénégal majaalis yi nekk ci Touba nan la ñuy jàngalee ak yan manhaj ji la ñuy jàngalee dinañ ci gën a yaatu lu bëree bëri. Euh, bu loolu jàllee danañ indi nataaj maanaam ay résultats obtenus maanaam li ñu waxtaanee yenn résultats lañ ci am yenn résultats la baax subu jur. bu loolu jàllee dinañ indi ay ixtiraaxaat ay tawsiyaat maanaam ay xalaat yoo xam jàpp nañu bu ñu ko jëfee rek xëy na jafe-jafe yu bari yu majaalis yi doon jàngoonteel dana wàññiku kon damay dugg mubasharatan rek ci al euh, nuxta al ula wala ci pàcc bu njëkk bi mu concerne li ñu wax ay maja doxalul islam fi Sénégal doxalul islam fi Sénégal na comme ni nga ko xamee l'islam ci boppam dafa teel dugg du ma ne Sénégal mooy Afrique bi safari am de manière générale euh, l'islam mi ngi dugg Afrique daanaka bi ñu yónnee yonent sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga ko xamee ci al hijra al ula bi nga xamante yoon sallallahu alayhi wasallam dafa digal saxaaba yi ñu daal di gàddaay daal dem Habasa muy leen foofu bu ngeen demee xam ne benn buur bu maanu bu fa nekk boo xamante ne kenn du toon ci moom kenn loolu comme buñ demee yàq na ci gis ay leer yu bëree bëri mu ne ci noonu la saxaaba yi njëkkee gàddaay daal dugg Afrique te boobu am na ay xaaraat yu bëri yoo xam ay continent yu bëri yoo xamante ne xamaguñ sax luy lislaam te boobu gis nañ lislaam dugg na Afrique euh, bi loolu jàllee bañ gën a sonal saxaaba yi ba loolu ji gën a tar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit dafa diggalaat saxaaba yi nee na gàddaay laan leen dem di nga dem xabasa mooy alxijir ak saaniya te xijir saani mi xool mi ngi nekkoon fanweeri góor ak ñett bu dee ay jigéen mu toll ci fukki gu jigéen ak juróom-ñett loolu lépp day wane ne rek lislaam moom teel naa dugg Afrique loolu lépp rek day wane ne lislaam teel naa dugg Afrique kon lislaam teel naa dugg Afrique te dugg fii ci mujaabaha maanaam dugg ci ngir xeex dafay dugg ci jàmm te bu xoolee ay gox yu bari lislaam moo fay dugg daanaka xay na direct tour na fa mais bu ñu xoolee lislaam bi muy dugg Afrique ak dugg Sénégal daanaka dafay dugg ci jàmm kon loolu ab tënk la rek ci ni lislaam duggee Sénégal léegi nag lislaam bi muy duggee Sénégal ba noppi am na awaamil ay facteurs yoo xamante ne moom moo participé ci tisaara lislaam ci Sénégal euh, facteurs yooyu nag mën nañ cee lim ñett ñett mbir yoo xamante ne dañoo participer bu baax a baax ci tisaaru lislaam ci Sénégal mën nañ cee tudd ñett mi al lugha al arabiyya mooy la langue ak turuxu suufiya maanaam euh, euh, mooy tarixa bi nga xamante suñu mag ñi moom lañu yoroon ñetteel bi mooy al majalis at taalimiya kon boo xoolee ñett yi ñetti éléments yoo xam ne importance yoo xamante ne tisaara nañu bu baax a baax l'islam ci Sénégal xëy na dañuy tënk rek ndax daanaka jotaay bi du may ñuy gën a détaillé dugg ci yenn yi bu dee almajalis ak taxalimiya dañuy gis na ne am na ñoo xamante ne ñëwoon nañ ñu leen wooye ay raxaala ay voyageurs nga xam dañ naan tukki def tour du monde am na kenn ci ñoom koo xam ne bi mu ñëwee eh, ci alxarn xaamis hachara fekk na eh, sëriñ si nekkoon Sénégal ñuy bind ci arab di jàngale njàng mu wér di jàngale waaw ci xarnu alxaami asar ci quinzième siècle am na ay sëriñ soo xamante ne doon nañ jàngale bu baax a baax di def liggéey bi nu mucc ayib te loolu yàgg na loolu boobaa léegi war naa ma juróomi téeméer at loolu day tegtale ne kon majaay suy na loolu bu am solo ci tisar islam ci Sénégal amaan na ko koo xam ne ñoo nga rad musso ab raxaala dan daan voyage def tout le monde tamit nee na bi mu ñëwee ci buur yi ca jamono jooja daa fekkoon am ay muallimin ay jangal kat yo xamne ñu ngon ci kër ëtt buur yi di leen jàngal al ulum al shar'iyya ak lugha al arabiyya kon lool lépp day tey ne day wane ne l'islam mom bu jaay ta talimé dafa séeréer lu am solo ci tisaa l'islam ta bobu gis na l'islam xëy na dugg na Sénégal mooy taxutoon mu yag lool lool te majaalis yooyu mën nañ cee tudd ñaar yo xamne xam ne daanaka dana yëpp mën nañ cee tuddu bo mam khadi Amar Fall ci pir ndax mam khadi Amar Fall 1603 1603 ci la créé madrasatu Pire te Pire xam ni nga ko xamee mi nekkoon jaamax bu mag boo xamee daanaka mbooleem xam-xam yi ñuy jàng jamono ji ci kulliyaat ci faculté yi jamono jooju dañ ko fay jàng. ci ñu bëri gis nañ foofu ci lañ génne damay imaam Abdul Xaadir Kan alaaj Umar Fuutiyu Taal ci madrasa Pire boobu lañ génne mën nañ ci tuddee beneen madrasa muy madrasatu Kokki bu maam Moxtaar Jóob mu numbee 1783 mi ngi koy defal 1701 1783. boobu tamit madrasa bu am solo la boo xamante ne kilifa yu baree baree bare ci réew mi foofu lañ jàngee ba maam Maaram Mbàkke sax wax nañ ne bokk nañ ñu fi jàngee ndax dañ ne euh, maam Maxtaar Ndumbe ak maam Lamine Sarr ak maam euh, doon nañ jàngee ca maam Samba Thiam fële ca euh, fële ca Jolof loolu day wane ne kon madaris yooyu wala majalis yooyu ba tey dafa suyee rôle bu am solo ci tasaare ci senegal mën nañuy tudd yeneen majalis yu nekk ci ci Sénégal xëy na lu mel ne madrasata jaamal ak madrasa Fass Touré ak Tiwaawan ak Kaolack ak Elwaar ak Ndar ak Sokone ak Mbakol Mbakol mi dëkk bu yàgg ci wàllum lislaam kon yii ay madaris yoo xam ne ay majalis yoo xamante ne suyee na ñoom tamit liggéey bu am solo lool ci tisaarul islam ci Sénégal kon loolu benn benn unsur la wala benn muqawam la ci tisaarul islam ci Sénégal muy majalis taalim ya ñaareel mooy li ñuy wax atruq suufiya maanaam mooy yoo euh, tarixe yi nga xamante ne suñu mag ñu baax ñi yoroon nañ ko te tarixa yi comme ni ñu ko xamee danaan commencé ci ay zawaaya zawaaya la daan commencé ginnaaw bi mu dañu yaatu ba dem ci ay masajid ci jàkk yi ginnaaw bi yaatu bu dem ci ay xuraa ay dëkk yu dëkk àll ginnaaw mu dem ci al mudul al kubra nga xamante ne foo dem Sénégal yi yaakaar na amut benn dëkk booy dem Sénégal amul turuuxu suufiya kon turuuxu suufiya yooyu liggéey nañ liggéey bu am solo lool ci tisaa lislaam te turuq suufiya moment boobu ñu fi nekkee daana fekk na sax xëy na lu koy jiitu lool abdullah ibnu yaasin yusuf ibnu taas nga xam ne wax nañ ne ci dawlu murabitin ñoom ñoo fi dugal lislaam yi waaye donte dugal nañ ci lislaam waaye mag ñi tamit seen turuq yi tamit liggéey na ci liggéey bu mujj ayib bi ko ñetteel mooy al lugha al arabia la langue arabe langue arabe tamit gis nañ ne liggéey na liggéey bu mujj ayib tamit ci tisaar al islam ci Sénégal euh, ndax euh, ñu baree bari ci doomu daara bi ma jàng wala ñu mës a dem bitim réew bu mës a ñëw ñibbisi ñaare euh, dañuy sampaat ay daara sos fa seen maam yi nekkoon loxo arabiya boobu nag mën nañ cee tudd yenn quelques écoles rek quelques écoles rek lu mel ne kulliyati imar bi nekk Colobane ak faron Sénégal Pire mooy mat école école Pire bi jaamaatu Pire bii bi nekk piir léegi ak jaamaatu al azhar bu Cheikh Ahmadou Bamba ak jaama mahadru al arabiya bu Cheikh mbag genn Gaïndé Fatma ak mënat islam bi alxaaj Ibrahima yooyu yëpp ay institut la yoo xamante ne gën naa tisaar loolu luxa bi ci ci Sénégal te luxa arab bi boo ko tudd daa tudd l'islam kon ci gàttal nag ñett yooyu mooy ñetti mbir yi ëpp solo yi nga xamante ne dafa wala facteurs yi ëpp solo yi nga xamante ne tisaara na l'islam ci Sénégal bi ko ñetteel nag euh, bi lislaam tisaaroo nag ci la majaalis daal di sosu doon fekkoon na majaalis yi sosu mais nag bi lislaam tisaaroo ci la majaalis yi gën a yaatu majaalis nag nan la sosoo ci Sénégal loolu mën naa xam euh, comme ni ko ñenn ñu waxee euh, système daara mooy système éducatif bi gën a yàgg ci Sénégal mag ñi loolu lañu xamoon ku sam doom masadal jàng buñ la yóbbu boo mokkale alxuraan wala mag nga ne sax seen daara yi alxuraan daan boole ma jaalis boo mokkalee alxuraan fa ngay dalee ma jaalis kon loolu lu yàggoo la ci Fuuta Tooro ak yeneen gox yu yaatu yu nekk ci Sénégal loolu li ci firnde mooy ibnu Batuta ku ñu xam la wax na ci rihla ibnu Batuta daal ne moom am na benn jour boo xam ne dafa ñëw fi ñu naan malit ay Mali duñ mu duggisee ci buur bi ci bisum ayit la mu fekk doomi buur bi dañ leen a jëng ci bisum ayit la ñu jëng leen te mu ne jëng boobu ba mu ñëw ba bala ñoo tàqal ko moom ñukk bala moo tàqal ko ñoom dañu mokkal alxuraan kon mag ñu yàgg nañu sonn loolu seen njaboot gi di mokkal alxuraan kon loolu ab benn pàtt la ci sosu majaay sax bu Mali bu njëkkoon léegi Euh, xudóor yi mooy frontière nim nim nim tàqal ko amagut amutoon xëy na léegi bi isticmaar ñëwee ci la def liggéey boobu waaye bu njëkkoon daan Afrique yëpp mu nga ne benn dëdd dëdd la kon loolu mi ngi nekkoon te 1352 1352 juróom-ñaar téeméer at yaakaar naa du ko sori lool kon loolu Ibn Battuta wax euh, ba tey ci loolu tamit dañuy gis ne amaana keneen koo xamante ne benn tukkikat la moom dafa wax ne 1507 dafa ñëw jolof bi ñëwee jolof fekk fa ay sëriñ yo xamante sëriñ ci wax tal lañ ñu nekk ak ay ayma ay imam ak i yo yoo dañ doon jàngale al alxiraa wal kitaba mi dañ doon jàngale nan lañuy lire ak nan lañuy bindé mu tek ci ne ci sëriñ soosu ñu ngi doon jugee fi naan al maghrib wal fa wal fas ñu daan jugee Maroc te loolu mi ngi nekkoon chat kon loolu majaas mom lu yàgg la ci réem système éducatif bu fi yàgg la. léegi nag suñu mag ñi bi ñu jàngee ci majaalis yooyu ba noppi nag ci la majaalis yi tasaar daal ñu baat seen gox nag kenn ku daal di créer sos sa daara ci la majaalis yi commencé di sosu ba suñ jon tey yi xam naa damay tënk ci bunt boobu rek euh, bu bu loolu jàllee nañ gis ne majaalis ci boppam système éducatif la boo xamee ne suyee na rôle bu am importance ci tisaare saxaafa al islamia al lughal arabia loolu moom kenn natt buñ ko Euh, sëriñ si euh, doomi sëriñ si ñu ci bare bu mësaa jàng ba ñëw daanaka comme ni nga ko waxee léegi dañuy delluwaat seen euh, dëkk bi daal di continuer la seen maam yi nekkoon di jàng ak jàngale te loolu mën nañ cee tudd ñenn rek wala ma mën nañ cee tudd ñenn rek maanaam ñenn ñi nga xamante ne si gën a am importance ci tisaal islam mën nañ ci tudd suñu xaali Touré ci Faas nga xam ne adib la muflix ñëpp xam nañ ko bind na lu baree bari mën nañ cee tudd ba tey sëñ Mbàkke Buso nga xamante ne sëñ Moodu Buso doomam nee na am na ashrina fannan yoo xamante ne sëñ bu Buso da ko maîtriser te ñoo ñëpp ñu xoolee ci système majaas lañ jàng jànguñu système bii ñu xam léegi kon loolu ab jéego la boo xam ne wane ne suñu mag ñi suyee na rôle am solo majaas suyee na rôle am solo beneen bi ci mooy i'raab yi nga xamante ne mag ñi daan nañ ko def bu ñu jàngee ci majaalis i'raab yooyu lu mel ni bisimi jaara mujj loolu la te aji lu xasab ila axir yi loolu ay takk la yoo xam fexe nañu ba environnement wala biira bi nekk ñu kere loo xamante ne xale bi dana ko xam ci xamin wu rafet wu ñoŋ woo xamante du ko indi benn jafe-jafe loolu lépp seenu xereñ ak seenu yeewu te lépp ci fadlu majaaj taalime ci la ko amee bu loolu jàllee dañuy gis ne ba tey ci ngëneel majaaj taalime ya ci la suñu mag ñi taalifee lu bare bare te mosuñoo génn gox yi wala ñu ci bare bare génn mën nañ cee tudd ñenn nga xam dañuy tënk lu mel ne maam Khalifa Niass gis nañ xasida mad xayri bariyati bi mu def ci xasida xaatima dur ala xuqudi jawhar fii mad sayid bar fii mad sayidil bachar bu maam Khalifa Niass si Amadou Bamba gis nañ gis bu xulóog ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne bu ñu ko doon lim fii lañ fanaan lu mel ni Cheikh Alhaaji Malick Sy xulaasa zahab nga xamante ne mad jën la ci siira bu dee Alhaaji Ibrahima Niass muy Baay Niass gis nañ mu def kitaabu tasrif ci wàllum sarf loolu lépp ci majalis bi lañ jàngee ba na ba kerewaat fi loo xamante ne day tisaare langue arabe ak luxal ak saxaaf al islamiya mën nañ ngi tudd ñu baree bare si ama dem sookoon nga xam ne def na euh, diyaa nuy rey ni nga xam ne ay sirna mu jàllat la ñaar fekk volume la lépp doo ko taf si alxuraan te lépp moom mës a génn réewum jàngee kon loolu day wane ne suñu mag ñi ci boppam liggéey nañ liggéey am solo ci tisaar l'islam lépp ñu amee ci majalis yi njàngee maal asaf nag seen maktubaat yooyu yëpp nag muskile bi am mooy nañ ko wax te dudd nañ ko wax dund dañ koy denc ci ay waxande di ko barkeeloo te yaakaar naa loolu taxu koo nu jug xëy na lu mel ni arabi alxadimiya bu nekk mara li gën ci liggéey bi am solo gis nañ euh, euh, muallafaat sëñ Tuubaa yu bari yoo xamante ne génn nañ ko ba tabon ko te tabon boo xamante ne bu moderne la boo xam ne ñëpp mën nañ koo liir kon yaakaar naa kon jot na suñ mag ñi loolu ñu bind ñu fexe ba gën koo dëppaleeg jamono ba mu nekk mbind moo xam ne ñëpp dañ ci mën a am accès mën koo liir loolu yaakaar naa ab la boo xam ne ñun ñëpp ci am part de responsabilité gannaaw loolu ñu ñëw ci al maja al manahij at ya fil majaal Sénégal bu waxee majaal Sénégal ni mu sosoo ba noppi ak mag ñi li ñu taalif yan manahij la ñuy jàngale yan méthode la ñuy jàngalee xëy na manhaj nag lu yaatu la loo xamante ne daanaka mën nañ ci wax lu baree baree bay waaye du ma dugg du ma guddal ci taarifaat yi dañ naan al manhaj mooy lan manhaj شيء يشمل على جميع ما يتعلق بالعمل التعلمي التعليمية من محتويات ومقررات دراسية وأهداف وطرائق ووسائل التقويم منهج داي أمب لب لو خامنتيني دا اجو كي ني محتويات كونتوني اك مقررات دراسية بروغرام بي جانغي اك اهداف اوبجيكتيف يان جوبا لين جانغي اك طرائق يان يان يون لين جانغلي ak wasaale taxwim yan support li ñu évaluer di natt xale yi loolu lépp day jóg ci manhaj moo tax manhaj lu yaatu daanaka mu dugg ci eh, euh, fond bi dëgg-dëgg mais nay xam ne daal suñ mag ñi manhaj yi ñu doon jàngale daanaka lu ci baree bari daanaka mën benn manhaj la ndax ni ma ko waxee léegi ñu ci baree bari ñoo bokk même école yu ñu génnee gannaaw ñoo bokk ñun école yu ñu génnee nag ñenn ñi jàngale ñenn ñi kon du hasard ñu gis seen manhaj yi di nekk loo xamante ne lu lu lu lu lu jegante la gis nañ tamit ne euh, li nga daan jàng jàngal di ko jàng Tiwaawan di ko jàng Pire boo ñëwee maakol moom nga fa jàng lu kon lu lépp ñoo bokkoon benn mën xëj bu dee aqida al ashariya tamit ñoom ñëpp wala ñuy gën a bëri bokk ci aqida ashariya boobu ci lañ nekkoon bu dee ci wàllum tasawuf rek ñu bëri ci ñoom ci wàllum tasu ay junne yi ci lañ nekkoon dañuy seetlu nag ne euh, bu dee mawaat matière yi ñu fay jàng al mawaat al lugawiya ak mawaat diiniya maanaam matière yi jël ci wàllum làkk arab ak wàllum diine moom moo ci gën a bari xëy na nag loolu uh, day waral day day dellu ci ne uh, ay jullit lañ te ab jullit balaa jaam suñu borom faw mu xam mu xam diineem uh, te matière yooyu gis nañ yi gën a bari wala yi gën a bari mooy tafsir te tafsir bi ci gën a bari mooy tafsirul Jalaalayn tafsiru Jalaalayn moom moo ji gën a bari ci loolu tamit ñoom nekkoon nañ ay mu fassiroon yàgg nañu géej dégg ñu naan tafsir diw tafsirum tafsir mbàkke ndumi ak ñeneen ak ñeneen ba wax nañ sax kalimatu pir pir ma ci la jóge ñenn ñeneen fi la jógee lu mel docteur Thierno ci téereem boobu mu def enseignement islam au senegal nee na tafsir parim kalimatu euh, pir euh, ci pirima tafsir ci la jógee boo nee diw foo jëm mu ne maa ngi jëm ca ma loolu moo indi baatu pir ñenn borom xam ne loolu lañ wax euh, ba tey gis ñom da may son loolu bu baax baax seen mëna ji jàng téere foq fiq yi daana jàng lu ma fukki téere fiq loolu xëy na ma waral ñuy dégg ay xaadi Amar Fall xaadi mam xaadi ma jaxate kala ndax kalima xaadi ko lu lu woyof ku ñu mës wax xaadi rek am na benn daraja ya bu ak ñu tuddé la xaadi comme jamono ji ñe dégg na du professeur agrégé ci nangam jamono ge mëna jàpp ne xaadi da nga ko jox wax n'importe qui faaw am yenn. xam-xam ñu loolu laa wax xaar yi loolu lu gën a ko may mooy ni daan jàng yàggee ci majaalis ba di sonn lool di jàng ci téere fiq yi euh, téere fiq yooyu tamit dañ daan sonn loolu ak di ko tare ak ak téere loxo yi bu yaakaar naa daal maari ba léegi ñoom moom ñu suñ di diglee dañu sonn di di di mokkal téere fiq yi kon loolu lu am solo la doon di sax yeneen tarbiya xadisa yenn pédago yu bees ñoom dañuy tere naan mokkal baax waaye man wax dëgg yàlla mu ànd ñoo ci mokk moom lu am solo la parce que dañuy dimbali lu baax bu bëree bëri. Ah, waaw waaw kon loolu benn partie ci nga xamante ne ñoom nit daan def ci wàllum ci seen manaax ji léegi nag seen manaax ji yooyu ci boppam gis nañ ne gis nañ ne ba tey eh, eh, xëy na ma nañoo yem foofu ci manaax ji sax ndax temps baa ngi dem kon dañuy baax mubasharatan ci al assaani mu aju ci dëgg-dëgg Maodo mooy al majalis at-ta'limi fii tubaa dégg dëgg majalis ab taalime yi nag ci Touba léegi nag buñ ñu liggéey ci loolu dañ ci wax lu yaatu yaatu foo am nañ fi juróom benn poñ nañ wax ci nasatu majalis ci Touba naka la majalis sosoo ci Touba ak yenn manhaj xam nga fee dañoo waxoon mën manhaj at-taalime fii majalis Sénégal fii nag mën manhaj at-taalime fii majalis Touba dañ ci dugg nañ wax ba tey lan mooy idaata majalis Touba majalis yi naka lañ koy idaara ak ñi fi génne yan musawaaya lañ am ak ban taxawaay la état am ci majalis ay méthode wala majalis jadida yi nga xam ne feeñee ci baa anamu ji kon loolu lañu fas yéenee waxtaan ci alfaslu sani bi noxta bi ci njëkk muy poñ bi ci njëkk mooy majalis ci boppam bu dee li concerne Touba lu fi yàgg la mën nga ne depuis sëñ Touba sanc Touba 1888 ci la majalis sasu kenn ku xam bi mu sancee Mbàkke Daaru Salaam ginnaaw ba mu ko rafaatalee rakk maam Cheikh Anta ci la sëñ Touba li tax ma sëñ ci Touba nag def mooy gën a daw li ci loxo yi nit ñi ak gën a ma taxaw jàng jàngale ak ni ko sëñ bu si waxee ci mënal baax xadim mais sëñ bi nee na sëñ ci Touba ngir di denc de ngir di e, dekkil ab gent wala ngir am mbay yu mel na waaye da ko sañ ngir jaam suñu borom kon loolu moo tax sëñ bi sañ ci Touba te bi mu sëñ ci Touba gis na ni fi njëkk a def mooy jàng jàngale xëy na lu ko juri ci Mbàkke Kajoor ji sax daana jàngale ba wax nañu bayit yu mu njëkk mujj jàngale mooy bayitul alfiyatu maali bu siiw boobu muy fenlu xiyaasa masdaril muadda min si salaasatin ka reddan radda gannaaw boobu bukki ba mu ñëwee Tuubaa jàngale moom moom la fi njëkk a def jàngale moom yëmu ci waaye dafa taalif sax nag ay téere yoo xamante ne day dimbale bu baax a baax ñu jàng ñu mën a xam li ñuy jàng mu gën leen koo gàttale ci anam gu gu gu goo xamante gu yom lay doon man nañ ci lu bare bare lu melni ni tawhid ak fiqh ak tasawuf yooyu yëpp sëñ bi dako talifat wala nga mën sax dako koo ixtisar def ay muxtasar yo xamante day gëna yom mokal mokkal kon daal ci teung mën nga ne Touba moom ba fi jangal majaas commencé ba léegi ëpp na xar ëpp na témer at na 1888 ak léegi yaakaar naa téeméer at ak ñaar fukk mom bu fekk ëpp na ko suñu téeméer at ak ñaar fukk juroom buma ma juumut ci lay toll kon système la bu yàgg ci dëkk bi euh, te bi ko sëñ bi sañcee tamit gis nañ ne da doon jàngale ba 1891 ba ni mu sañcee Daaru Alimul Xabiir def ko sëñ daa mu jàng alxuraan sañ Mbàkke bu sa nekk ca wet ga di jàngale xam-xam loolu lépp jàngale ak jàngale doon def ba ne xamante ne am lante naa tubaab bi ba tubaab bi yóbbu ko ci géej gi teewut la doon bëgg-bëggam mu ñu nekk fi di jàng ak jàngale te mi ko yóbbee gis nañ ne sax

ci la jox izn suñu am setu joxate mu daal di ñëwaat Touba ngir ubbi fi école madrasa taalimee di jàng ak jàngal loolu suñu sang bi moom ko nett ci moxaabale yi ma def ak kon loolu day wane ne euh, Touba bëgg suñ bi santee ba léegi hmm? waaw kon bokk bi santee ba léegi waaw kon bokk sëñ bi sañcee ba léegi kon gis nga 1912 bi suñu am sëriñ ñëwaatee ubbi école di jàng ak jàngale ci ndigalu sëriñ bi loolu day istimraariya la ci ndigalu sëñ bi ci noonu lañu continuer ba lu ko bu dara 1912 1913 1912 1913 bi sëñ Mahamadou Fall sañcee Ndindi Cheikh Moustapha sanji Tindóori Cheikh Moustapha moom bi mu sanji Tindóori te jamono yooyu mi ngi woon Daaru Xuddus nee nañ suñ longoon mbay suñ longoor mbay jamono yooyu dana doon a jàngale ak jàngale xam ak alxuraan te jamono yooyu Daaru sëñ bi boobu mi ngi njaareem kon loolu day wane ne jamono yooyu ba léegi teewut sëñ bi néew Tuubaa waaye am na ay majaalis yu fa nekk ay bërëbu jàngukaay yoo xam ne ba léegi ñu ngi jàngale suñ longoor mbay ci lañ indi e, e, madrasa Longoria boobu ci jumaa ji ba fi Sëriñ Moustapha may jàngale ba jamono ji doom Sëriñ Moustapha si Mbàkke may di fi jàngale kon loolu lépp day wane istimraari ya la naka noonu tamit gis nañ ne e, bi sëñ bi làqoo 1927 ñu nopp koo gis suñu gët ci zahir bañ ñëpp koo gis ñu bari ci njaboot gi moment boobu aajo woon nañ wala mokk nañ alxuraan te faw ñu soxla ku leen jàngal xam-xam ci la Cheikh Moustapha Khalifa al awal daal waxtaan si du Jaxate ci koo xamante ne dina mën a ñëw Tuubaa mën a jàngal njaboot gi fi nekkoon jamono jooju ci la ko sëriñ Hamzatu junjee sëriñ Habib Mbàkke al imaam boobu mi ngi de mi ngi njëriñ si mu dem di jàngale loolu moo sabab suñu Habib ñëw Tuubaa di jàngale xam-xam ba ni ko suñu borom moomee ci 2005 rahmatullahi alayhi kon ñu gis ne ma yàppi sëñ bi bi mu fi sancee ba léegi tasalsul lay def tasalsul lay def ci loolu euh, biñ suñu bi moom gis nañ ne ñu baree bari ci njaboot suñ moo leen jàngal xëy na euh, temps bi du may ñu koy lim mais mën nañu tudd Cheikh Saliou Mbacke ak Cheikh Souhaïbou donte am na feneen fu njëkke woon waaye jànge nañ ci moom ba ni ko suñu borom moomee ci loolu ba tey bi ñëwee ba 1963 bi Cheikh Mamadou Fadel Mbacke euh, tabaxee jumaa Tuubaa ba mu àgg bañ ubbi ko comme ni nga ko xamee ci lay jël suñu kilifa gu baax gi alxaaji Mbacke Jaxate te ko fu mu fay jàngale ba suñu jonn tey ji ñu ngi ñaan suñu borom gën koo sàmm bu mën gën a taxawee liggéey bi loolu moo yàgg nañu dégg sëñ bi di ko nettali boppam man mii nettali ma ko ci ma xaabal yi ma jotoon jotoo def ak moom kon depuis 1963 ci lañ euh, ubbi daaru maarif al islamiya ba suñ jonn tey ji mu nekk juróom benn fukki at yaakaar suñ ndong bu ñëwee dañ indi ay leeral yu gën a am solo ci loolu ba ñëwee ba ci 1975 76 suñu aafi busa al imam moom moom nett ne moom dadaan boo xëyee bala daan jàng bala bala daan jàngi dadaan muraajaxal ñi nga xam ne dañ ko xaar door a jàngi bi yàlla defee nag bu dem ba àlloo mat ke siñu abibu nag ko daan xaar mu fu far mujj ubbi nag majlis di jàng loolu mi ngi nekk 1975 1976 kon loolu du du du sorek bi nga xamante ne sëñ Moustapha mbay mi ngi commencé jàngale ci daar yi kon daal gis nañ ne ci tënk daal lii mooy majalis yi ëpp solo yi nga xamante ne nekk nañ ci Touba donte am na yeneen yu fi nekkoon sax nag mais temps ni sëñ Cheikh Sëy ci Daarul Xuddoos ak sëñ Xasan Busa ci Gere Busa ak ñeneen ak ñeneen mais yii daal nañ jàpp ne mooy majaal ëpp solo yi nga xamante ne mu ngi ci Touba noonu daal ci gàttal ci la majaal sosoo léegi nag majaalis bi mu sosoo ba noppi nag lan la ñuy jàngale ban manhaj la majaalis di jàngale majaalis Touba ca pàcc bu njëkk ba damaa waxoon ne yan mën manhaj la majaalis taxalimi yi nekk senegal di jàngale fii nag waaw yan manhaj la maja taalim yi nekk Touba di jàngale bu dee ci manhaj yi nekk Sénégal xëy na téer yu baree bari waxoon naa ñoo bu dee ci wàllum tafsir gis nañ tafsirul Baydawi tafsir madaariku tanzil tafsir Baghawi tafsir tawil yoyu ak nujumu tawaali matnu Shaatibiya matnu Jazari yooyu ci wàllum tafsir ak wàllum Quraan xëy na yooyu ñoom ñëpp ñoo bu dee ci wàllum fiq tamit al akhdari asmaa yu muqaddamat ibnu izziya ak murshidul muin mu gën a ciiw ci ibnu ashir ak risaala ak manzumat ibnu rusdu aqrabul masalik muxtasar sayxu xalil toofatul ahkaam al mudawana zawraqul qaidu matnu rahbi ci wàllum fiq bu dee ci wàllum xaqida gis nañ umul barahin ala masab imam abul hasan al ashari ma bi suñ tubaa taalifaat tuddëk mooy xudus lu ñu ëpp moom lañu daan jàng loolu ñëpp ko bokkale بدي بدي جدا بدي كوال متصوف الحكم لمن يعطى الله أك المنقص من الضلال أك إن علوم دين أك بداية الهداية أو خوت وخوت خلوب أك رسالة القصيرية ها بوب مؤبلين دان جان كوال متصوف بفكين تن كوال منك أصول الفقه تي جينا نرموي الورقات نظم البيخوني أك مراخي الصعود يوموج جينا نرموي بودي كوال لوم حديث alfiyatu bu jalaaluddin suyuti moom moo ci gënoon not wala saxiix bu buxaari wala saxiixul muslim moom moo ci gënoon not loolu ñoom ñëpp ko bokkale bu dee ci wàllum fiq tamit gis bu dee ci wàllum naxwu matnul ajróom ibnu ajróom ñoom ñëpp ñoo bokkale ak milxatul i'raab laamiyatul afaal nusxatu zarif mutamimatu ujróomiya al muqaddama al kokkiya al alfiyat limnu malik al andalusi al lixmira limnu buuna ak tashiil li maam ibnu abdullah ibnu malik at-ta'i boobu ñoom ñoom ñëpp ñoo ko bokkule bu dee ci wàllum balaaxa ak adab jawharul maknun ñoom ñëpp ñoo ko bokkule laamiyatul arab mu sanfara laamiyatul ajab ak zaiya bu kii daaliya zaiya xasan ibnu masud abul ali al buusi ah bu dee ci ba tey maqso ibnu doredin ak daaliya ak maalxaat as saba ñu koy woy sonra al buddatu madix maqaamaat xariri ak uqudu jamaan ak tabsiratu asaan loolu gis nañ Sénégal gépp ko bokkule bu dee ci wàllu mantiq man na salam lu ëpp moom lañu daan jàng bu dee ci wàllu maarut ad daaira achafiya fi l arur wal xaafiya ak baxru tawil ak mu bayn ishkaal bu maam xawadi ma jaxate kala ak siraaju taalibi ulum al arabia ak ak misaan sahab kon yooyu ñu mu li naa jàng kon daal yooyu mooy téere yi xam ñun ñëpp ñoo ko bokkale boo ñëwee ci majaal suba moom xëy na daam ay kutu ah, xaas yoo xam ne ñoom ñoo ko jagoo xëy na li nga ko gis feneen da am ay téere yoo xamante ne majalis subaa ñoom ñoo ko jagoo lu mel ne tasuur du soxaar jawharu nafis ibnu ashir euh, jawharu nafis waa nayu xalal ak euh, masaliku jinaan ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne majalis subaa ñoo ko bokk kon bu gisee dinañ gis ne téere yoo xamante ne bokk nañ ko moom moo gën a bari kon daal loolu ci gàttal mooy manhaj bi nga xamante ne moom la euh, Touba euh, euh, mag ñi bokkoon bu dee Touba na am ci mën manhaj spécial boo xam ne dañ ci am yeneen téere yoo xam ne bokku ñeneen léegi nag bu ñu ñëw ci ahdaful majaas Touba yan mooy ahdaf xam ngeen ne hadaf objectif daan nekk lu am solo ci wàllum jàng ak jàngale kuy jàng faw nga xam fa nga jëm moo tax hadaf du am solo la hadaf yi nga xam ne seet nañ ñuy jàng ñuy jàng ci Touba nag ñuy jàng ci Tuubaa xadaf yi daanaka xadaf yi ñoom ñoo ko bokk daanaka ah waaw yi gis ne xadaf yi ñoom ñëpp ñoom ñoo ko bokkule waaw ah. wala mën ngaa wax sax ne ñuy jàng am na koo xamante li tax mu jàng moom daa bëgg bu jàngee ba noppi nekkub jàngalekat loolu mooy xëdëfam gis koo xam ne gis na ne majaale ci boppam bu fi ñëwee mën na fi am ab faro luxawiyya boo xam ne du ko mën a amee ci al madaar al arabiyya gisoon nañ euh, jamono yi ñu amee ak bër ñu ko woy ay vacances wala fête daaru maarif ak yu mel ni moom day fees dell ay ndongo yoo xam ne di ñëw foofu di jàng boo leen laajee ñu ne ñun kat école bañ nekk dafa jàngee téer yi dañu foofu jàng lu mel ne ay buddatu madih ay ibnu dërëri nga xam ne su ñaare di ko jàng ci école yi dañ ñëw foofu di ko jàng kooku jubluwaayam mooy fexe ba am saro loxo bi xadab bi nga xamee ne ñëpp ko bokk na moom képp koo gis muy jàng ci média subaa do ñoo ko bokk mooy kenn ku ci ne daa bëgg boo paree nekk ab jullit xaqan kon ni suñu aas daan waxee dama bëgg bu ngeen jàngee ba noppi ngeen nekk ay jullit ñoo xamante ne ay taalibe fu ngeen nekk man fa imam mën na nekk kon lool yaakaar na hadaf boobu ñëpp ko bokk léegi nag ban hadaf moo gën a not ci jàngalem Madiara Touba gis nañ ne waaw ku ñëw taw may wax nii dégg kii ñu ko dégg duñ ko dégg daam nga jaar doo dëkk doo nekk à l'aise waaw waaw waaw kon di nga gis ne xarit bi nga xamante ne No.

day gis ne mooy hadaf diini hadaf diini loolu sax mën nga ne Sénégal gépp li fa gënoon mooy hadaf diini am na benn xooli bu naan Mortali Cissé bu naan Mortali Cissé am na benn box ko defoon nee na bu ñu xoolee bu ñu xoolee euh, hadaf al lugawiya ci boppam ci boppam daanaka moo gën a not ci njàngaleem Sénégal nga xam ne bu ñoo xool téeméer boo jël. fanweer ya la ci gën a jàng day njàng ngir diine bu dee nag téeméer wa xarif luxawi ya wala xarif luxawi téeméer boo jël ñaar fukk ya day jàng ngir wàllum luxa kon loolu lu am solo lu mat a xam na moo tax euh, al mujjama Cheikh Ahmadou Khadim bii Cheikh Ahmadou Khadim bii gis nañ seen taqrir boobu ñu def dëxal nañ ci ay ahdaf yoo xamante ne la war moo war mu euh, mujjama bi bokk na ci seen ahdaf yooyu ba ci njëkk mooy takwin ulama rabbaaniyin formé ay borom ay worom xam-xam yoo xam ne dañuy wéetal seen borom la ñuy doon te loolu hadaf la boo xamante ne mën nga ne lu dëppoo la ak njàngaleem sëriñ bi ñaareel ba mooy ñaareelu hadaf ba taxrij jiilin min ulama wal aima fexe ba génne ab génération boo xamante ne ay worom xam-xam la ñuy doon du ñam ci ay worom xam-xam waaye dañu nekk ay aima ay imam fu ñu nekk mën faa jiite bokk nañu hadaf mu jamaa bi ñettel moy li ñu woowee al muhafaza ala asalib takhlil ala asalib ta'lim at taxlid al asil wa tajdidih conserver wala garder méthode bi ñu doon jangalé bu cosaan bi ma ngi nekkoon ñu gën ko garder ba ne fa xol li nga xamantene jëmon jéemoon ënd na ñu xol nan lañ ko dëppale suñu jàngale te du yàq ci lañ yoron dara kon ñetti xaraf yoy bokku na ci li nga xamantene mu jéemoon ënd nañ ko seen hadaf kon loolu lay wone ni hadaf lu am solo ci walum jangal jangal Euh, loolu day waral ki nga xamante ne day jàng war naa xam tamit buy jàng téere yi téere bu ne lan mooy jubluwaay ba ndax lu mel ni tësiwdu saxaar ak sonraal ya kenn ku ne xam ne yàlla yàlli la xale bu fekkee dafa ñëw am na ñoo xam ne day ñëw rek jël benn téere gis benn waaye rek yor bu dee téye benn téere téere bi góndi leen rek ñu jënd ko te duñu xam sax lan lay jàngale wala lu ñu xam sax lan mooy ahdaf ba léegi nag euh, loolu day waral da ngay temps bu bari te li ngay jàng nga am ci eh, maanaam euh, satisfaction dana jafe misaal may joxe rek ku mel ni ko koo xam ne dafa jël tey mawaahibu xudduus commencé ci jàngu tëjoo du sixaar kooku loolu xam nga jafe-jafe la ndax bu dee tëjoo du sixaar dafa boole tawxiid fiq tasawuf bu dee mawaahibu xudduus nag aqiida maxda la bu xaw a compliqué bu fekkee jeero ci jaar jaarwaay xam lan mooy julwaay téere yi loolu mën naa laa indil jafe-jafe kon loolu man naa bàyyi xel ci majaalis yi loolu nag ñiy jàngale am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy ndax man du ma nekk seen jiitu di jàngale nit ñëw maanaam jàngul lu bare ba indi soxoraw ma xam te jël fa mu war a jàng nga di ko tëral kooku daa mel daanaka doo soree koo xam da ngay jël ak mbuus gu bënn di ci sol kon loolu ñuy jàngale war nañ ko bàyyi xel ndax dañu wax ne alhadaf al unsur al thani min anatir nasariya at tarbawiya ci wàllum pédagogie hadaf dafa nekk deuxième élément bu am importance boo am boo ko négliger ba nga neenal ko rek lu bare bay li nga bëggee ci wàllam njàng ak njàngale daanaka doo ko am moo tax mën na bàyyi xel bu jógee ci hadaf ñu ñëw ci li ñu woowee al kutub al muqarrar yan téere la ñuy jàng ci majalis xëy na lim naa léegi yenn téere yoo xamante ne dañ koy jàng ci majalis yi nga xamante ne Sénégal gépp boog ay yoo xamante ne euh, xëy na majalis ñoom ñoo ko jagoo Sénégal bu ñu waxoon naa léegi nag ñu ci baree bari ñuy génn école Pire bañ jógee école Pire nag mag ñi ci leen tisaaroo kenn ku ne dem sañ ab dëkk daal sa daara ba nga sas sa daara gannaaw na yéen a bokk école yu ngeen jànge wala yéen a bokk daara yu ngeen jàngee yéen ci ngeen jàngaleen seen biir kon du hasard ñuy gis seen programme yi muy muy wuute ndax dañ ne Mame Lamine Sarr toxoon na ànd nag ay doom ay dongaam dem ci maam Makhtar Diop di fa jàng maam Maaram Mbàkke tamit jàng na ci maam Maxtaar Ndumbe ñoo ñëpp gis nañ jàng jàngalante nañ bokk ay école kon bu fekkee saaroo nañ rek du asa ñu gis seen école yi ñu daal di bokk même programme naka nan tamit dañuy gis ne maam Samba Thiam ci moom dafa jàngal maam Lamine Sarr jàngale maam Maaram loolu xëy na ku dem ci euh, livre blanc boobu waa Rawdu Rayaan génne woon euh, correction boobu dañuy gis ay bayaanaat yu gën leer léegi nag kon mën naa bàyyi xel lool ñu xam téere yi ñuy jàng léegi téere yooyu nag li ñu ko mën a critiquer gis nañ ne suñ mag ñi fexoon na am najaax am najaax ci créer seeni turuxu tadris seeni méthode yu jàngale yoo xam dafa dëppoo seen bi am dëppoo fexe tamit euh, taalif ay téere yoo xamante ne dañ ko indil seeni donga mën nañ cee tudd euh, maam euh, Mor Xujo Kumba al muqaddama ak kokki ya gis nga téere muqaddama kokki ya boobu nga xam ne doo ko def nga xamante ne téere la bu riis riis Euh, bu dee ci wàllum siira waxoon naa ko léegi xilaas zahab boobu téere bu riis la kitaabu tasrif bu bàyyi nges boobu tamit téere bu am solo ci wàllum sarfu euh, saadu tolaab bu Seex Ahmadu Bamba nga xam ne ñu ko jàng fii ci majaal subaay téere la am bu am solo nga xam ne fexew nañ ba ñoom bu ñu jàngee mu noppi xool nañ bii a bi nekk li soxla ñu fexe ba taalif ay téere yoo xamante ne ñu ko fee mën a jàng loolu kon lu am solo la ñu fexe ba xool tamit téere yi ñuy jàng waxoon waxoon naa ko léegi téere bu xale bu commencé ci may xudus te jàngu tësu saxaar loolu jafe-jafe la waaw ah, ndax xëy na téere yi ahadaf euh, du bokk te hadaf da am lu am solo lool ci wàllum jàng ak jàngale moo tax gis nañu mujj max bi xëy na ku am accès ci seen taqrir boobu ñu defoon def nañu ay ahdaf yu baree baree bari ci wàllum jàng jàngale bokk na ci ahdaf yi gis nañ ne Euh, majaalis Touba am na yeneen mois yoo xamante ne xëy na manqué na ci te war nañ ko cee jàng ndax jamono moo ko laaj moo tax nga gis ñu wàll wàllum taxriir ñu woowee dissertation nan lañu bind arab bind dañ koy jàngale foofu gis nañ tamit loxol faransiya ak loxol ingilis nga xamante ne ay langue la yoo xamante ne ay jumtuwaay yi dañ koy jëfandikoo jamono ko laaj gis ne ba tey euh, dañ koy jàngale ci foofu kon gis na majaas jot na kon ñu xoolaat programme yi yeneen yi nga xam ne soxla nañ ko yu mel wàllum donte xëy na jàngalam tubaab moom xeyna na bu suñ bi daan bañ jikko jaag yu mel way jamono do ko laaj jamono jamono jamono mo laaj ñu xolaat ko waxuma ñu duggal ko ñu ne nga xolaat dal ni nga xolaat <laughs> wa ni nga xolaat dal euh ni nga xolaat bu ñew ci wàllum turuxu ci tamit gis nañ ne tariixa bi ñu jàngale turux dafa am am solo ci wàllum jàng jàngale ni ko wooyee ndax dañ ne euh, turux mooy euh, fi ngay jaar ba xale bi xam li muy jàng am benn jafe am na ko waroon tax dif dane طريق التدريس هي الكيفية أو الأسلوب الذي يختار المعلم لتحقيق هدفه المنصور عبر الممارسات والأنشطة التعليمية التي يقوم بها في فصله تي تنك رك موي ميثود بيغا جار غير ما توتش بوب جناخ يا خم نو مانا جار نك لول موي تاريخ تي غاتال تاريخ بوب نك دا ام سولو لول nga xam nak ban tarikha mo geuna munasib ak xale ndax xale bi nga xam ne xëy dafa néew ndax daa am lu ñuy wax ci ilmu nafsi tarba bi al furuux fardiya la différence individuelle doomu aadama nii suñu borom moo ñaale am na koo xam ne boo waxee benn yoon rek mu xam am na koo xam ne wax fukki yoon mu door a xam kon loolu lépp ndaa mat di bàyyi xel moo tax nag boo xamee loolu naa tax kenn ku ne xom balan tariixa moo gën a munaasib ak xelam ak xelam ba tax na sax gis nañ jànkati tubaab yi wala suñu état bi nga xam daanaka sax day sonn lool ci wàllum tariixa nga xam daanaka sonn ci lool def ay séminaire lépp xool rek matière bu ne am na tariixa buñ ñu koy jàngalee. gannaaw ñoom ñoo am ñoo am ñoo am ay moyens di sonn ci lool kon nag ñun war nañoo xoolaat bu baax a baax xool yan tariixa la ñuy jàngalee ba xam est-ce que tariixa ba fa maam yu nekkoon bàyyi woon ba léegi est-ce que ba léegi du aajowoo ñu soppi ko wala ñu am lu ñu ci dolli loolu mën naa bàyyi xel euh, léegi nag yu xoolee majalis suba yan tariixa la ñuy jàngalee li ci gën a not mooy tariixatu talxiin wal muhaakaat talxiin mooy lañ wala mooy li sax danaa ko bisimilahi ci suuf boobu laa tàmbalee samay wax ak samay jëf arrahmaani ki aji xéewal xéewal yu dijj yi ci àdduna fekkee léegi xale bi boo ko waxee loolu mu jaar booba ba noppi moom mu daal ci jaaraat wala nga wax ba noppi nga wax moom mu lay moom mu ngay wax muy wax wala nga wax ba noppi ba noppi ba ko suñ jiltu wala suñ Mustafaa jax mu daal koy toppal loolu mooy tariixa kon tariixa talxiin al muhaakaat moom lañ jëfandikoo تاريخال تاريخ وات بو مهاكان لغي نك بو ديفال با نك با خامنا خالي بي نك خامنا ني دوكو باي ميم كون فوف لول نون في توبا نون لا جيف نكو تاريخ يي تامي خولي تيري تي بوبم دام اي تاريخ بو نكو تاليفه خاينا ني بار ني نكو جانغلي مي دي ني باي خيل صاح تاريخ بو نكو تاليفه بو جيلي لو ملني تاي الفيت ان مالك داي غيس واجنا كلامنا لفظ مفيد كاستخيم كلام لفظ لا مفيد ها كاستخيم فوف الطريقه القياسيه لا فلما طريقه قياسيه موي دلي انديل قاعده بنوبي دول مثال مي بو خول الفيه ñaar لي جان قاعده با فهمو بو دو اندي مثال مي ولا مثال دو اندي تا فين بيت با لول موي الطريقه القياسيه بو نيويي تي لو ملني نخل واضح بو مصفى امي وعلي جارم اك آه، بلاخر الواضح ييب طريقه الاستقرائيه لي جيفنيكو لا مو طريقه الاستقرائيه day gis ne day indi amsila yi lu mat juróom-benn amsila ba jàpp fukk amsila yooyu bu la ko sayx bi waxalee ba nga xam ko nag ba noppi nag boo demee ca safa ba ca ginnaaw nag foofu lay def benn sabaka indi fa xaayida bi loolu mooy tarixa al istiqraaya gis nga moo ko tarixa xiyaasee ñaar yo loo xam bokkuñu bu dee kii da lay indil xaayida mu xiyaasee du la indi amsila yi bu dee istiqraa moom da lay indil amsila du la indil xaayida bi loolu nag yow muy jàngale nga xam ban tarixa lañ taalifee téere bi da ci baax te dañuy gis ne bu dee nax waat yi euh, sëñ bi al Moustapha Ami Ali Jarim bu paree day gi ay tamrinaat mu tanawi yoo xamante ne ka kafaatu xale bi dañ koy évaluer ci ay maanaam ay façon yu bëree bari dina ko andil takwin jumal xool ba est moom mën naa takwin ay jumal bu paree andi ko mu tëmiis est-ce que moom am na compétence ci mën a tëmiis mën a ràññee bu paree loolu mu daal di indi ay kalimaat wala ay jumal mu baax sara yoo xam ne dañu koy jaxase xool boo xam mën na am distinction kon loolu lépp dafa aajo bu baax lool ci wàllum évaluation xëy na bu ñu ñëwee ci wàllum tax nañ ci wax lu bëree bëri mais daal li ma bëgg wax mooy ñu fexe ba xam tarixa yi ñu jàngalee loolu da ci baax loolu tarixa yooyu nag donte critiqué nañ ko wala ñenn ñu ngi koy critiqué man damay gis ne ba léegi tamit am na solo lool wala mag ñi am nañ ci najaax bu baax a baax ndax suñu mag ñu baax ñi ñu bëree bëri ci lañ jàngee donte lu wara xolal la nak ndax da dangay gis ko xamantene han ah, da nga yor lu mat fukki ndong suñu sang bi day yor fukki ndong wa suñu sala yor fukki ndong kenn ko yor ci du soxar nga bëkk ko jàngal fukki ndong kenn ko nga def ci mom 5 minutes loolu yakana 50 minutes la loolu boko defé ci ñetti firax yakana da daanaka 11 day jot ba gis na japp na bu mu ma fexé ba def firax jamaat def ko lu mel ay musawayaat ñu bokku tuddu soxar ak firax la ñuy doon ñi bokku mën a rusuroo ak firax la ñu doon nga xam ne yow euh, yow mi jàng sax yow mi jàngale loolu da la gën a teggal ay coono te kii jàng ci lay gën a comprendre am na koo xamante ne pour mu xam faaw mu nekk ci biir firax bi bu ñëpp ñu waxee bu juróom-ñeent ñu waxee ba moom dong la ci cire doo xam kon loolu yaakaar naa war nañu ko xool bu baax a ci majaalis yi comme di ko ñu baree bari defee léegi mais jàngale moo xamante ne da kenn ku ne nga bëgg ko waxal moom yaakaar naa mett na lool ci ñuy jàngale Euh, loolu mulaaxasa la boo xam ne daanaka majaalis yu bare bëri ngay gis ci tubaab noonu lañuy jàngalee xëy na am na ay benn benn yoo xam ne gis naa léegi commencé nañ di jàngale système boobu di def ay firax mu jamono bi sax mu juumut méthode boobu la ñuy jàngalee def ko ay fosool nga xamante ne euh, lu mat ñaar fukki ak juróom jàpp fanweer ñoom ñoo bokk ak téere kon loolu mën naa bàyyi xel euh, gis nañ ba tey ne jàngale majaalis xale bi bu fekkee sañ nañ ko wax daanaka amul lenn lu ko tënk waaw كين دوكو مراقبة ومراقبة الأم صلى الله عليه وسلم مراقبة الأم صلى الله عليه وسلم خليف دال ما موقف سيني وقت من ناني مغم بوفم لا مغم بوفم أمو لين لتن دي خي نيو بوقف تيرم دوكو يجي بوثم بنيو يجي سين حمزة ولا سين سالم جانغلو مدادي بوقع دوكو يجي بوثم دم أمو لين لتن لول مول نسيت لولا لكن لما نروح لكي مشكلة تو مشكلة تو كان كن تيرم تيرين لولو مم الأم صلى الله mu jàmm wax naa léegi ne moom la ñu def bare la ñu def al tarkis al fardi sëg ji benn élève rek loolu da nga yàq sa sa tooxo en même temps yàq sa waxtu waaw te bu fekkente ne fexee na bu def ko ay firax li nga jàngale ci nga ko gën a xamee teew ci nga gën a économiser sa waxtu ndax jamono ji dañoo ne saxaafatu maanaam culture de vitesse lañ toll amul lenn luy xaar lépp lu ñu def dañ koo def ci lu gaaw kon loolu mën naa bàyyi xel léegi nag léegi nag euh, bu ñu ñëwee ci turuxu turuxu taddis yooyu ñu ñëw ci li ñu wooyee al wasail al taalimiya wala al wasail al taalumiya taalumiya les les di didactiques mooy yan support yan jumtuwaay leen jàngalee loolu lu am solo ci jàng-jàngale am na ko xam tey xel mi dafa naqari li nga ko jàngal di ko misaal mënu koo xam faaw nga indi jëm ju ne léng mën koo mën koo comprendre dégg naa sëñ Abib Mbàkke benn xista bi ñu nekk ci moom waa ji dana ko rafaa am na ñetti màndarga mu ne ko luy màndarga dana ko am na ma rafaa màndarga loo xam ne kenn du ko xool gis gis ko loo xool loo xam kenn du ko xool gis de man xam ma ko loo xam kenn du ko xool di ko gis xam ma ko <laughs> kenn du ko làmb daj mu ne li ñu làmb daj boobu la lem ëpp téer ëpp téeram daal dem ne li ñu ëpp adduna amul li ñu làmb di ko daj xëy na kooku mustawa bi mu fëx moom foofu la toll jàpp ne lépp lu ñu làmb di ko daj mënu moom mënu ko am ci la ëpp téeram daal dem kon baxna lo ñu fexe ba di jëfandikoo ay wasail wasail al taallumiyya wasila nak muy way mi jàngale am solo gi am solo moo tax suñu borom tuddu ko ci alquran nun wal khalam ak sam wal basar wal fuad yooyu yëpp ay way yo xam dañ ci mëna xamé ba ay gëtt ci ay bëtt wala ay gëtt comme ni ko wax ci ngay gisé xol ci ngay jëlé nopp ci ngay dégg. alaqal la ci ngay fahmu yooyu yëpp ay wasaayil yoo xam joomu aadama ci lay jëfandikoo ngir mën a am xam-xam te wasaayil yooyu nag dañ ko war a bàyyi ko xel bu baax a baax léegi nag wasaayil yooyu day gis ne bu dee ci mawaat yi ñu jàngale day wuute mawaat bu ne xëy na wasila boy munaasib ak moom wasila bu ne boy boy munaasib ak moom te wasila boobu dañuy wax ne euh, dañuy wax ne euh, daam benn mbokk bu def benn bansu waxoon naa ko léegi nee na النسبة المئوية لاستحمال لاستحمال الوصل التعليم الإداهية في دروس النحوية تساوي 60 بمئة بيو خولي كوال منحو من وسيل ينجف نكو دانك تيمين بوجل جوم بن فكوية كل ينجف نكو وسيل وسيلة تجاك أنا آه، نحو دون تكمبلغو جنيان ني lol dong duy war nañu fexé ba wasel yi gëna jëfëndiko mu gëna am lu am faale dal gëna am efficacité comme niñ ko waxé dina jëfandikoo wasila sax waaye nag dafa doyut fii jëfandikoo wasila mooy gis nañu bu ñu jàngale naxu am na ay rumeurs yu ñuy teg boo jëlee sens la am na ay nuqaat yu ñu def ay ay doom yu lay defal loolu dañu ko jàppee wasila ak ñu la euh, rafa ñu ko tëggee dawalanu dam waaw liif noonu def ko ci ay baaraam nii loolu dañu ko jàppee comme wasila fataha am na juróom màndaga fala kayaha fata laam kasa yaa euh, fata alif kasa yaa xasaf noonu loolu wasila la mais loolu tamit deuyit gis nañ tamit bu ñu jàng lu mel ni sifatul musabbaha ci balfiitu malik dana la sifatul musabbaha benn mu rafa njëfteem wala mu rafa ko wala mu nasef ko bu ko rafaawee benn mu rafa ta taara wala njëfteem taara ila axir yi loolu tamit dañ koy jàppee wasila ngir taqribul maanaam ci ki nga xamante ne xëy na jàng loolu gën a yomb ci moom loolu loolu wasila la boo xam ne ñu jëfandikoo ba tey gis nañ dañ jëfandikoo wasila ci bu ñuy jëf jàngale lu mel ni naxatu ñu naan naxatu day topp euh, euh, njëf day topp man xootam ci kenn ñeent yu sox koo ci fukk ñeent yu sox koo ci fukk kenn ci raf nasab xafat ila axiri yi loolu wasila la bu dee miraas tamit gis nañ bu ñuy jàngale dañ jëfandikoo wasila gis nañ bi jàngale miraas ñu naan la riche làkk risque mooy ñi nga xamante ne duñ dond mooy lan mooy عدم الاستهلال الشك في سبق اللعان الكفر الرق الزنا القتل yooyu ñu la ko misaal nii loolu wasila la bu ñu gisee tamit bu ñuy jàng lu mel ni yenn téere arab yi lu mel ni al tilaawa wala lu mel ni al insa sax yi ñaar dañuy doyloo rek ci suura bi nekk ci dars bi lu mel ni tilaawa wala insa sax yi ak dars al awal dañuy gis ne foofu kër al manzil moo fi nekk manzil boobu ñaare seex bi lay jàngal mansib lay jël te foofu day jàngal mu kawinaat manzil nga xam ne yow bu ñu ko amoon wasila bu leer rek yow boo fa jógee dèjà yow lépp lu ay ci manzil da nga koy xam waaw loolu mën naa bàyyi xel daal ci wasila waaw kon daal wasila moom lu am solo la ci wàllum wàllum jàng jàngale nga xam ne ñàkk yi wasila day tan xàkki day reflété ci résultat yi ngay am xëy na nit ki ni mu ko waroon xamee mu leer ci boppam ñàkk wasila moo tax leerul ilmu taj yu tey mi ngi koy jàngale baaxoo na lool ñoom benn timsaal benn estati boo xamante ne buñ ne laa aqsal xalq gën kaa sori ci bëli mooy lan am na koo xam tey ci wala xamut la moo di bëli sax xamu ko léegi moo ne ko aqsal xalq kooku yokk nga ko réer bu ñu andoon benn timsaal wan ko ko nii ne ko teg baara ne ko lii mooy ak bëli loolu dana lee ci boppam dana xam xar foofu boobu fan lay génnee mais bu ne xaraf xalqa rek yow xamoo lan mooy xalqa la loolu jafe-jafe la lu mel ne ilmu nujum tey bi nga koy jàngale tamit baaxoo na lool ñu am lu mel ni xëy na télescope télescope du yomb waaye njëf ni ko yenn téléphone xam an waax nu joom yi an wax nu yi waaye di misaal rek yaakaar naa doyut kon baaxoon nañu am benn suura wala benn lu mel ni vidéo boo xamante ne dalay jàngal nga xam li ngay jàng di ko mën a gis di mën a gis loolu da ci baax moo tax gis yenn jànkataa bi ñaare seen ndongo yi da leen yóbbu ci yenn place yi ñu ngi iktishaaf lañ leen doon jàngal ca faslu ba ci fusul ba ñu dañ ko kumpa te loolu lu am solo ci wàllum jàng-jàng ndax dañ ne xale bi euh, yow li ngay tafkiir mag mi ak xale bi bu ñu bokk yow li ngay gis li leen misaal léegi nga mën koo comprendre xale bi du ko gaaw a comprendre bala mu koo comprendre mu yàgg lool moo tax bu am loo xam ne bu ñëwee ba teg ko baaraam wala gis ko nii dina xam ne lii mooy nangam ji kon loolu mën na di bàyyi xel. ànd loolu lépp nag mag ñi fexoon nañ ba nag ñàkk wasila fexe woon nañ ba comme ni ma ko waxee léegi ñu créé seen wasila bopp ndax ay big yi ñu bindee. ay table yi nga xam ne kobos rek moom muy dem ñoom fexe woon nañu ba am seen dungu ginaar ci leen daan bindee bu dee ci wàllum alio ay xanaa bu dee jamono ji ñu ngi ay machine ordinater yi lañu jëfandikoo mais fexe woon nañu ba am ñoom ay ay lawxa yoo xam ne ñu ngi koy wutee ci garab di ko bindee bu dee jamono yi nga xam encre yomb na léegi xoos daa yaakaar naa suñ ji ñu koy defati bëriwul léegi fexoon na ñoom ba léegi am seen euh, encre boo xam ne ñu koy jëlee ci di xoos ay daa loolu lépp ay la yoo xam fexe nañ ba di ko jëfandikoo ci wàllum njàng jàngale nga am seenu farlu bopp kon bu ñu jógee ci wasila ñëw ci wàllum al mudda az zamaniya diir bi nga xam ne seetlu nañ ne daal ñaare xale bi jàng ci majaalis dina ko def gis nañ ne majaalis xale bi day ñëw waaye du xam sax moom ñaar at la war def ci majaalis man daal ñëw naa 2023 maa ngi jàng waaye xuma kan laa fi jaar te yaakaar naa nag yëf yi wërta demee noonu nag nit bu ñëwee awali wax la war naa xam moom mii bu duggee ci daara ji kañ la fi war a jeexal toujours si bii may jàng ñaata xisso la am ñaata ñaata cours la am ñaata cours la am mooy xudóot bi may jàng ñaata xissa la am nga xam dañ koy tawsir daf koy répartition nga xam ne day gën a yombal xale bi moo xam ne kat bu ma commencé mooy xudóot yi ci korote wii maa ngi ko war a jeexal ca màggal ko wala ca gàmm gi noonu loolu lépp gis na ko ci majaalis xale bi daal day ñëw di jàng waaye du xam sax ñaat at la waa def ci majaalis bi te buggee euh, réew yu développé yépp nag même Sénégal yi sax dangay gis xale bu ñëwee al marxal al ibtidaaiya euh, primaire day xam ne moom juróom-benn at la fi def bu réew wut léegi sax gowaan na am na nga xam ne asi mos nga am gowaan na am na nga xam ne léegi daanaka sax da boo mosee fa sama ngaa jàll bu ñëwee ci marxal i'daad ya am fa euh, ñett ñeent at bu ñëwee ci marxal saano yi def fa ñett at bu ñëwee jaama ñett at def licence ñaar at def master ñett at day leer ci boppam ne kat man ko fii ak 2000 nangam bu ma góorgóorlu rëddudoo mën naa am li sa sàngam ma jaas na dañu ñëw di jàng rek ba mu neex la nga bàyyi doo xam sa yow ban ñaar at nga fa war a def te loolu muskila la boo xam ne lu ñu war a régler nag nga xam dafi sànq waxtu bu baree baree ba da gis koo xamante ne juróom-ñett at la jàng jeexal gis koo xam ne juróom at la jàng jeexal gis koo xam ne fukki at te boo leen gam-gam lee yenn saa gis ki nga xamante sax moo gën a néew at yu jàng ëpp mu sawaa waaw loolu lépp ñàkk am euh, tahdid fatra dirasa yi moo ko waral léegi nag te ñàkk organiser ak barnaame dirasiye dafa bokk ci wala tanzim barnaame dirasiye dafa bokk ci asbaab raïsiya yi nga xam ne day gën a day gën a euh, day gën a am nataay yu baax waaw day gën a am nataay yu baax waaw ndax xale bi foofu moom ñaare du xam du xam amagul ak xàmmee olof yi dañuy jaawale xam ak xàmme nit ki nit ki mën naa xam du xàmmee wala mën naa xàmmee sax du ràññeele yow mi jàngale yow mi ràññeele yaa war a fexe ba foofu xale bi mu am lu leer ci boo nga xam ne kat bi jógee fii lii la war a jàng fii ñaar at la ko war a jàng waaw loolu benn muskila li gis naa ba tey yenn masaa'il yi war nañ ko dindi buñ ko dindi wu tamit ñu i'aada nazar fii xa daal ñu xoolaat ko lu mel ni mu riq wàllum jaam ama jibbeer yooyu da koy jàng ba sonn doo ko mës a gis fenn doo ko mës a gis waaw lu mel ni risaala moom moo ci fees dell boo demee siraaj saalik c'est la même chose moxtasu say xale yi moo ngi lépp req la req loolu nag te nit ki nag di ko jàngal loo xam ne da ko soxal nag baax na lool loo xam ne bu génnee da koy gis waaye jàngal loo xamante ne doo gis moom loolu muskil la boo xam ne war nañ koo saafara euh, <coughs> euh, gis nañ ba tey ne euh, loolu réew yu baree baree bari xàllu nañ muskil la boobu yàgg-yàgg lu mel ni Maroc gii tey rek seen barnaam bi taalim al atiq boobu nga xam depuis 2016 lañ ko créé euh, fexe nañ ba xale bi am na ay muzakiraat ay documents yoo xamante dañuy répartir tawsih li mu war a jàng am ay jadaawil yoo xamante ne day sukkandiku ci ay euh, asus tarbawiya yu leer yoo xamante ne ci lañ ko sukkandiku fan yi mu jàng téere bi fan yi la ko jàng weer yi la ko jàng mu leer ci boppam kon loolu mën naa bàyyi xel problème jafe-jafe la ci majalis bu dee mu jamono Cheikh Ahmadou Khadim bu tubaab bi nag gis nañ mu jamono kii bi xismu majaalis bi ñoom def nañ lu noonu ndax ci wàllum euh, ñoom dañ ko séddee fukki at ak ñaar euh, ñett at njëkk yi ñu koy woowee al marhala al asasiya xale bi ñett at la fi jàng bu jógee foofu am lu ñu woowee am daa euh, dem marhala al mutawasita def fa ñett at mu juróom-ñeent at bu jógee foofu dem al marhala mutaqadima mu juróom at bu jógee foofu dem al marhala al muy fukki at ak ñaar nga bu fi jeexee jàngee foofu daal jeexal nga xam ne xale bu duggee ci mu jëmam tey day xam ne kat fii kat fukki at ak ñaar yi bu ma ko jàngee te respecte wu redoublé ma dinaa fi jeexal te majaalis gis nañu ne jàng rek doo xam sax yoon ñaar at nga fi jàng da jàng di dem rek loolu jafe-jafe la boo xamante ne war nañ koo saafara euh, bu ñu jógee ci loolu day ñëw ci wàllum li ñu woowee taqwiim taqwiim mooy li ñu woowee xayma ak natt xale bi est jàng mu ngi koy xam wala xamu ko gis nañu majaalis Euh, ñaare xay na dinañ dinañ def taxawum di natt waaye xëy na façon bi ñu koy defee day des lu bëree bëri te taxawum nag day mel moom mooy terminus ba moom mooy rendez-vous ba rek waaw rendez-vous ba daal mooy rendez-vous. la nga doon jàng la ñu waxoon ci mën xëj dañu waxoon na mën xëj motawaay mooy contenu bi ahdaf yi objectif yi ak turux yi yi ngay jàngale asali bi yooyu yëpp rek ma ngay feeñee te taxawim ba. taxawim bi bu baaxee ñu ne li nga doon jàngale baax na waaw bu fekkee li nga waaw bu fekkee taxawim baaxul ñu li nga doon jàngale dara baaxu ci te gis nañu majaas daanaka dañu xaw a ihmal dañu xaw a neenal lool lool taxawim taxawim nag waroom xam-xam yi altarbawiyyoon li ñu woowee ay pédagogue dañ ko séddale ñetti xaaj am na lu ñu woowee at taqwim al qabli ab taqwim al banaa'i at taqwim an nihaa'i taxawim xam li mooy lan mooy xale bu ñëwee bu door a dal jàng wala bu jàng see ci suba gi bala moo jël benn dars nga xool ba xam lan la jot a jàng mokkut wala mokkut bu mokkee ñu jël dars bu bees bu mëkkut ñu daal jàngal beneen dars bu bees loolu moom ma jaar ñëpp dañ koy def bu ñëwee nga tare waxaat li nga jàngoon sëñ Xaadim wala sëñ Hamza bu fekkee li nga jàng xam nga ko fii la alhamdulilah xamul nga iaadawaat dars ba loolu ñëpp dañ koy def بري التقويم بناينا كبير بين جانج ولا التقويم النهائي بوجي خلي بين تيري ولا بين وحن ولا بين برنامج نولي إيفالية دل نت إسكيو تيري بيخم غو ولا خم غو ما نلي مكو كيس ما جالس برو مكو كيس برو تي دما يا كان نيد نبود لما نخلي نعها من كو جانج لما نيار أت ولا بين أت جنوال بام جيخ دون لا جيزخ تي تيري بلاج لبام يو إسكيو خلي بي باب نكا دينغو زكاة دينغو لول مشكلة لا nga xam ne yow dangay ngay jàng rek doo xam sax yow li ngay jàng boo amul farlu lool mën ngaa bañ a bu baax a baax li ngay jàng kon loolu muskil la boo xam ne war nañ koo saafara te taxawim lu am solo la nga xamante ne gis nañ ne daanaka euh, suñu état yi nga xam ne sax wàllum njàng njàng li ñuy sonn ci taxawim di def ay séminaire di bind ay décret di changé di changé ngir rek taxawim am solo gi am solo ci wàllum njàng ñun nag daanaka ñaare duñ faral di def taxawim ñetti taxwiim yooyu moo am xëy na mën nañ wax lu gën a bari waaye dañuy tënk ngir xëy na waxtu yi mi ngi gën a dem léegi nag ci taxwiim boobu li ma ci wax nag du jaageen samay wax la waaye muxaabalaat ma def ak yu bari bari ñoomu ko ndax bu dee muxaabalaat yi dem naa suñu suñu majlis dara maarif ak euh, sëñ Moustapha Mbay ak sëñ Afe Bousso ak sëñ Motula Touré Abdoul Ahad Bousso ak suñu Baara mo suñu Habibu juróom majaalis daal juróom ñaar majaalis daf na ñëw maxaabal ak ñenn ñi nga xam ne ñoo ñoo yor wàllum euh, njàngale ci euh, département bi ñu leen wooyee ay kilifa ay ay ay ay ay kilifa ci wàllum nguur ñooñu ñëpp dafa nañu mu xaabalaa ngir mën a am ay masaada yu ci la ci li ñu wax comme maxaabalaa yi ma def ñoom jàngalekat yi nekk ci Tuubaa suyoox yi ñu bari ñoo wax ne taxawim bi moom amul kon loolu du samay wax kon taxawim googu mën na di bàyyi xel bu baax a baax mooy tax xale bi di xam léegi nag gis tax taxawim googu li tax xëy na du am dafa dafa taxawee dafa am lu mu laaj bokk na ci al i'dad al kaamil préparation waajal looy taqwim asila si Moussa Diakhaté nga xam li may wax bala moo génnee yenn asila faaw mu tim ji masinam bind ko siyaaxa tanseex ko xool ba amul xatam mat ba yi doo koo génnee loolu lépp taqwim doo ko laaj te xëy na ki jàngal ma jàll yenn saay zorof yi condition yi ak ñàkk waxtu doy mooy tax xëy na du mën a am temps boobu mën a i'dad ngir mën a génn asila yi waxtu doy te taqwim tamit wut nekk benn façon comme ni nga koy defee nga xam tare rek dëgg la tare baax na lool benn méthode la ci tax yi waaye tare dong doyut li tax ma tare doyut dong doyut alif yédment danga kii koo xam da koy mokkal minal alif ilal yaa ah xam xaani day waaye tey boo ko bëggoon a ta'bira lughal arabiyya wala bëgg koo bind la benn leetar daanaka boo sagganut rek di nga di nga yee fitna li ko waral mooy dina xam bu baax a baax waaye da koo tàmmuta euh, jëfandikoo te dañuy wax ci wàllum ilmu nafs tarbawi ne al luga tukku tasabu bil mumaarasa langue bu mën a doon rek faaw nga koy mumaarasa di koy jëfandikoo mooy tax mu dem ba installé wu waaye dañuy jàng xaani di waaye duñ ko taw tawsiif waaw te buñ demee lu mel ni euh, naxu waat yi tamit naat yaakaar na ku koy respecté bu baax a baax di ko def yëpp yëpp daal ndax naxu buy xoolee li ñu jàng ci majalis bëriwul yow euh, naxu waat yi nga jàng jusu ëwal jusu saani wala saalis chande tulaab mu tamit ujuróom ñene min i'rab jang alfiya ko lu yaakaar naa bëriwul ta la la ndawon ca ndorte la ndax naxu mo ni nga xamee ab sen la lepp lu raw ca bopp rek mënu ko dab wat waaw ci ñu bare ba day gi jom day jangal ba jeexal programme naxu bi ci waye da naka rek di am jafe-jafe ci walum bu bëggee bind ngir ñaar lam non jang da ko taw dug istimal ta istimal da am solo ci lepp lo jang ta taxuy mbob dañ ne ci walum terbi dañ ne dafa wara nek ci maanaam avant ngi tàmbali dañu war a tax taqwim ci biir bi ñuy jàngale tamit war nañu di taqwim bu ñëwee ba jeexale benn buntu war nañ di taqwim bala ñoo taxu beneen moo tax la doo di dal war nañ di taqwim te loolu lépp ñaare gis nañu amul. Euh, gis nañ ba tey ñi jiina ci majaas ñaare du ñu am ay lijaasa yoo xamante ne ay lijaasa te ay lijaasa mënut a ñàkk jamono ji donte ñu bari boo ay lijaasa dañu jàpp ne liggéey ci nguur wala mel noonu déedéet. lijaas am ko dafa baax ndax bu ne bëggoon yow xam yow ban Moustapha nga toll faw ñu am ay lijaas loolu moo waral ñaar ñi ci génn dañuy dem di bokk ay candidat libre euh, soit ñu dem ci dem de i'dad sanad i'dadiya wala sanad sanawiya ngir ba ñuy jàng fañ doon jàngee amuñu woon ay ay sanada léegi nag jot na sëkk nag majaas ñu def benn bolo fexe ba ñi fi jànge ñu juleen jox ay sahada moo muxtarafa nga xam ne lu ñi ci bëgg a dem defi leneen def ci le ku ci bëgg ko def leen nga xam ne tamit yow am nga sa sens wala loolu fekkee mënuñu fa ak sax ñu am lu ñaa taadilul mustawa jàng ba noppi benn seex ñu ne alhaaji mbàkk jaxate tey alhaaji mbàkk jaxate ku jàng ma ne boo ñëwee mooy taadil mustawa xool yow ban mustawa nga am mu jox la ko signé ci ñoo xam ne comme ni ko murtani defee yenn yi di ko def loolu yaakaar naa mën na mën naa bàyyi xel euh, mën naa bàyyi xel lool wax naa ko léegi Euh, ñun daanaka bu ñu tax muy tare la def te tare ñaare ci téere moom euh, manzumaat yi nga xam ne dañ koy way moom la ñuy tare bu dee téere yi nga xamante ne dañ koy nasar lu mel ne ay risaala ak yu mel noonu ak euh, yu mel noonu ñaare duñ ci duñ ci doo ko tare da nga jàng di dem rek ñaare boo ñëwee yenn saa la nga jàngoon kenn du la ko laaj loolu jafe-jafe la gis nañ daal taxawim bi nga xamante ne majaas yëpp dañ koy def mooy tamrinaat yi ñuy def ci ci naxu daanaka loolu daal moo ci gën a bari loolu moo ci gën a bari kenn ko xam ne mbir nag xam ko ak tatbiix daa mel ni yàlla ak yeel yi damay delloo sax ci wàllum saxaada yooyu mun a imaginer nit ñu ne diwkat génnee na bërëb sàngam waaye nag xamuñu bu ñu doon xool mu sow naa moom daal mi ngi mujj jàng xalil wala muraaxi suud la mujj jàng muraaxi suud la mujj jàng la wax est-ce ba mu jàngee muraaxi suud xam na ko xamu ko loolu mën naa tey li mën naa jàng programme ma ba jeexal ka waaye moo ko mën a yem la mu ci jàng daanaka la mu ciy dégg taxul mu bari loolu nag bu ñu doon taxawim xam kii ban mustawa la toll wala ban la yellool loolu lu am solo lay doon. Euh, même sax boo ji léegi même ñu liggéey tamit genre boo ndax jamono ji genre dañ koy laaj boo dem fenn duñ la laaj ba xam lan nga xam genre lañ lay laaj genre boobu day baax nag yow it nga am genre nga xam bu boo ci bëggee liggéey mu mën laa jariñ tamit ku ci bëgg liggéey tamit loolu tamit xëy na loolu sa suwaal gis nañ dem ci wàllum idaara majlis wàllum gestion bi wàllum administration bi ni muy doxee euh, gis nañ euh, majlis amut idaara wala bu fekkee am na idaara sax daanaka idaara bi taxut mu demee noonu lool ndax euh, kenn kon daanaka ni mu ko waxee léegi sa magum bopp nga tilmis bi day xëy si jàng si dem amul lu ñu wooyee sijilu mun naa daat mooy registre d'appel boo xam ne dañuy bu xëyee dañuy xool ñi jàng si wut ñu daal leen not ne diw kat jàng si wut mooy tax bu ñu nee bay taq wi ñu xam ne que dal si sàngam fekk woo ko woon loolu mooy njariñ li gis majaas amut lu mel noonu daanaka euh, xale bi daal moom di xëy jàng si dem yenn saa yi sax xam ak muallim bi du ko taxay demee noonu léegi ko xam day jàng day ma mat at daanaka du xam sax suñu champs bu muy sax te du xam sax du ko xàmmee alaaxa bi alaaxa pédagogie taxu mu demee noonu. loolu tamit yaakaar naa muskil la boo xam ne war nañu ko ba ñiy jàngee ci médias ñu xam kat diw ku ne. ñi fa jang ñep ñu xam seen tour am liste bo xamne xam ñi ñoo inscrire waaw waaye INSEP rek ñu jangal rek noonu donte lu bax la mom waye fi war nañ ko xoolaat daal amul tamit al khanun dakhili li ñu woowee règlement intérieur xëy am nako sax waye nekku luñ bind nekku luñ bind ta khanun dakhili dafa wara nek lo xamantene xamante dañ koy bind ci bund bi ku ñoo xamne kat fi kat señ bi dafay téré han ah, mu yëree jigéen fii kat sëriñ bi dafi tere pantalon fii kat sëriñ bi dafay tere ku fi dégradé mu leer si bopp mais nit bu mu war nekk loo xamante ne mu saafa képp lay nekk ñu bind ko ci mbind araab mu leer mbind wolof bu ko defee ñi nga xamante ne seenu euh, dañuy door commencé mu am koo xamante ne moom moo féetewoo ak talaamel al ndongo yu bees koo xam ne moom moo leen di moo leen di dalal loolu tamit gis nañu ma amut ndax te xam xale bis bi muy njëkkee ñëw di jàng si lu am solo la ci dundam muy man muy keneen kenn ku ne bis ba ngay njëkk a jël aloo de ko say poñ ni bis boobu ilaa mi ni doo ko fàtte bis boobu nag am ku ko dalal tam day baax lool ku ko accueillir waaye du jàggi dañ ñëw rek jël ab téyam teg rek ñu tëral la ko rek mu dem lool moom luñ mat a bàyyi xel la ma ji idaara boobu nag gis nañ ne réew yi baree bari lu mel ni markasi takki ulama bu Mauritanie def nañ lu mel noonu am na majlisi idaara boo xamante ne kii jàng euh, wàll administration lay seere am majlis al ilmi conseil scientifique am al maktab at-tanfiisi boo xamante lépp lo xam lañ fay jël ay xaraal ay dison foofu lañ ko jëlé loolu tamit gis nañ amul suñu majalis yi bu nimé ci majamam boobu Cheikh Amadou Khadim bi ni ci xismu majalis gis nañ am lu mel non na amna cheikhul majlis ku jité majlis bi am na mudiri dirasaat directeur des études am muraaxib al am surveillant général am kaatib al am secrétaire général am masoul anshuun al mali am trésorier am al mushrif ala sakan wa taxziya koo xam mooy yor wàllum campus social bi mooy wàllum dëkkin wi ak wàllum dund bi loolu nag xëy na bu dee majaal yi nga xamante ne ma ñi dañuy jàng di ñibbi si mën na koo bañ aju mais bu dee yi nga xamante ne dañ fi internet moom moom lu war am la même bu fekkee majaal yi jàng ñibbi sax war naa am lu mel ne seexul majlis war na ko am mu dir darasaat yooyu yëpp yaakaar na war naa mën am ci majaal yi donte dañuy jàng ñibbi si waaw kon idara idara mom am solo la ci walum, walum walum jang. jang ndax dañ ne jang jangale ñet ñu ko al madda al ilmiya matière bi mu jang. al mutaallim ki nga xamene moy jang, moy ndongo bi ak muallim moy jangale kat bi ben bu ci nek de buñ ko nee neenalee xëy yi am day day def bu baax baax kon dal xeyna may teung rek ndax waxtu da mel li ci des bari tut buñ joge ci walum idara day ñew ci léegi ñi nga xamante ne dañuy génne majalis ban musawa lañu am ban musawa waxoon naa bi may commencé daan ne euh, système éducatif bii Sénégal njëkk xam mooy al nisam al majlis yi suñu mag ñi baax yépp ci lañ génnee te leen jàng lépp ci lañ ko jàng kon euh, majalis système bu baax la bu ko encadré bu baax lool la li ko wane mooy euh, ñii ciy génne seetlu nañ ne buñ demee ci yeneen dëkk yi wala ñu bokk ci yenn musaabaxaat yi daanaka raw gàddu la doon ñoo fay raw loolu la day wane ne kon programme bi baax na euh, ndax ndax seet nañ ku fa jàng ñaari juróomi at wala juróomi benn at te respecté li nga jàng te xam ko daanaka musuwaa baccalauréat wala li ko raw sax danga am xëy na nag leen lañ gis ne moo amul mooy yenn muwaat yi lu mel ne riyaadiyaat mathématique xëy na taxul mu bari ko lool bi ñu koy jàng ci ñu ciy jàng xëy na bëriwul al joxraaf Sénégal deuxième la ciy jàng teqniyaat taxriir mooy dissertation ni ñuy bindee tamit daanaka ñi ko fi jàng bëriwul ni ñu koy jàngee bëriwul te dañ ne nit nag li xam man koo tax biir loolu day wane ne eh, day day gën a taqu bi day gën a may wala ne moom kat li nekk ci moom ndax ñëpp ñenn yi dañuy jàpp ne sax boo xamee dara te mënoo koo joxe daanaka la xam daa xaw a des kon daal fexe ba jox yooyu solo lu am solo loolu la muy wàllum euh, wàllum yenn ma ma muwaat yooyu noonu muy mowaat yi nga xamante ne dafa xaw a manqué ci majalis yi waaw Euh, moo tax suñu mag ñooñu ci majalis lañ génn mu nekk système am solo ñu am niveau yu kawee kawe kawe nag mën nañ cee tudd ñenn rek Cheikh ma dem Sokone waxoon naa ko diyaar nii reen nga xam ne ñaar fukki mujallat la ñaar fukki mujallat te mës a génn réew mi la ko jàngee fii nag tey dangay gis ko jàng majalis ba jeexal dem bitim réew jàng jàng lu mu jàng bu ñu ñëwee benn téere sax du ko taalifagul loolu nag moom muskil la la moom euh, ku mel ni tamit Cheikh Mouhamed Bachir mel na bàyyi xadim gis nga arab yi ni mu riisee te réew mi la jàng majalis la jàngee Cheikh Tidiane ngay xam nañ ko adib la nga xamante avant mooy dem Tunisie jàng na ci Majalis la jàngee te def na inscrit na lu mat ñaari fukki téere avant muy génn àdduna 2011 60 ans la gis nga li mu jàng lépp la nga ci Majalis la ko jàngee kon daal système Majalis système bu am solo boo xamante ne buñ ko gën a taxawoo dina gën a am nasaay léegi nag suñu mag jàmbaar gi ñu jàmbaar seen mbind yooyu nag waxoon naaj mais naa ci waxaat muskila bi mbind yi am mooy façon bi ñu koy bindee mooy a abajada yooyu noonu ak yenn ahda isaabe yi nga xam day xaw a nekk lu xam nekk raamita loolu war nañ koo bàyyi xel gën koo tabaxuwaat façon bind mi ko bindee ñaare mooy lu bare ci téere yooyu tamit day sànku ñenn ñi di ko denc ay waxan di ko barkeeloo waxoon naa ko waaw léegi nag gis nañ ne tamit ñi jàngoo ci majaal ñaare danaan def ci majale bi di dimbali seeni sëriñ léegi nag ñu baree bëri bu jàngee daanaka duñ nangoo yàgg ci majaal yi moo tax léegi niveau yi dafa xaw a beesal lool niveau yi dafa ku mës a ci majaalis day nekk adib nekk shaayir nekk faqih léegi nag ku génn ci majaas moom daanaka benn matière rek ngay man ngir nit ñi daanaka njàng bi taxul njox ko lool lool solo léegi bi ci des mooy état bi nag ban taxawaay la état bi am ci majlis même communauté bi al mujtama ban gis ne am ci majalis day gis ne état Sénégal ci boppam mi ngi commencé di yittewoo njàngum diine ginnaaw bi amee indépendance wala nga njàngum arab sax laay wax ndax boobu diine jëwagut li taxaw ma ngi digal ko ci système éducatif mooy euh, diine ndax Sénégal nee nañ nee nañoo 95 pour cent ay musulman la ci li ñu wax. saxaafa bi ak siyaasa bi ñett yooyu moo tax ñu digal njàngum loxo arabiya ci Sénégal bi Abdoulaye Wade ñëwee nag 2002 ci leen digal li ñu woowee attribué diine éducation religieuse nga xam avant loolu éducation religieuse moom yaa ngi ko daan jàngee ca majalis wala école arabe yi. ñenn ñi dañ wooy école mbedd donte man turoo damay naqari lool ndax ñoom ñu ngi liggéey liggéey am solo foofu lañu daan jànge diine bii nag Abdoulaye Wade ñëw 2002 ci lañ dugal daara tarbiya diine ya ba léegi gisoo ko ñu tudd majalis bi ñu ñëwee nag moo tax ci dangay gis ba tey état bi dafa dafa signé ay pacte euh, fii ak 2030 fii ak 2030 li ñu woowee ahdaful tanmiyal mustahdama objectif développement durable waaw xanaa ñu tënk rek ndax daa mel ne waxtu waxtu yi li ci des xam naa damay tudd yenn majaas yu yu yi nga xamante ne feeñ Tuubaa ci anam yu mujj rek gis nañ ci ñaari wala yeneen majaas yoo xam ne def nañ li nu wooye sawra mën nañ koy tudd mahadul euh, euh, xadim bu Cheikh sëñ Mut sëñ Murtala Touré ak mu assasil afiya bu sëñ Abdul Ahad Bousso ak majlis daarin wal maxrifa bu sëñ Cheikhouna Bousso fii ci. jàkke sëñ Mahmoudan gis nañ ñoon dañuy indi yeneen kutub yoo xamante ne amutoon ñu koy jàngale gis nañ tamit dañuy taqu lu mel ni Muassasa Afia bu sëñ Abdoul Ahad Bousso ak bu sëñ Moutalla Touré gis nañ ñoom taquyum dañ koy jox solo lool ñoom dañuy taquyum fan xale bi di jàng biir bi muy jàng tamit day taquyum bu demee ba jeexal benn barnaam yi tamit day taquyum bu dee ba jeexal benn barnaam bi tamit di taquyum kon yooyu ay majaas yoo xam ne am nañ gis nañ tamit lu mel ni suñ Seexuna Buso du am na yeneen téere yi yu ñu dugal yu mel ni idaaw dugg na fii texaari ahlu na yooyu nga xam ne Sëriñ Tuubaa du na ko ci masaa ginnaaw dawon ko jàng ci majalis rek ñoom gis nañ jógal kon daal euh, Tuubaa am na ay ay ndaw yoo xamante ne am nañ xalaat bu bu bu rafet ci gën a jëmale majalis kanam sàmmali fi ne woon daa ci dolliwaat euh, xam naa dama ñëw ci nataa ji banque bi wala ma ñëw ci ixtiraaxaat yi rek ma ñëw ci ixtiraaxaat yi waaw xaaral ma ñu extra gannaaw waxtu yi ñu mayoon daanaka xaw naa xaw naa cate lool amoon na yéene nag gën a wax lu bare bare waaye xanaa waxtu bi dafa ne léegi bi ñu bi ñu defee bi ñu bare nag gis nañ ne majalis gis nañ jàpp nañ yoo xamante ne euh, wala nataay ji bax yi ma waxoon sax li ñu doon wax léegi lan lañ ci déggee mooy gis nañ ne majalis majalis ci boppam dafa suyee rol am solo ci tisaare lislaam ak sàmm luxal arabiya ak luxal umm li ñu woowee langue maternelle ndax kalimaat yi ñu lay jàngal ci majaalis yu am solo lool xëy na boo jëmuloo majaalis man koo bañ a xam gis nañ ba tey ne islaax réformer programme majaalis loolu demande sociale di tax nekk demande sociale mooy danga gis ñenn ñi léegi danaa dama bëgg bëggee dem ca école nangam école nasaraan wala école franco arabe ngir xam fa matière sàngam sàngam xëy na matière yooyu bu ñu ko indi woon ci majaalis bi xale bi du ko soxla ko jëggaani feneen kon loolu réforme moom demande sociale la euh, gis na ba tey ne majaalis suyee na rôle am solo doon am na jafe-jafe mais suyee na rôle am solo lool lool lool. majaalis tamit am ay baax wala kutub yu wax ci waaye majaalis maa gis dafa néew lool daanaka nit ñi seen mu gëstu duñ ko jëmale ci wàllu majaalis sax majaalis système boobu yàgg lool nee naa mooy système éducatif bu Sénégal njëkk xam avant tubaab yi di fi ñëw. tubaab tamit am na ay majaalis yu yo yoo xamante commencé di tëbal nii di système boo xamante ne day boy boole baynal asala wal muhaasara mooy lu moderne boole lu fi nekkoon lu yàgg li ak lu bees bi euh, te médias yooyu gis nañ ne euh, médias tamit gis nañ ne bi da ko da ko néewal lool jox ko yitte xëy na bu dee daara alxuraan yi gis nañ ne ñoom doon nañu ba léegi ñu ngi jàmbat ñoom suñu muur bi ba léegi ñu ngi jàmbat waaye gis na suñu maamoon mu suñu fàllu moom moo yoroon daara yàlla suñu borom yërëm bi fi jógee suñu maam suñu xabaan yàlla suñu borom gën a waaye médias suba moom man ba sàmm ci suba xamuguma ci yan loxo la nekk koo xam yan loxo la nekk nag nga wax moom ninkaan yi ma joxe nag jàpp ne bu ñu ko saafara majaalis dana jafe-jafe dana saafaru mooy yii ñi nga xamante dañuy génne ci masa majaalis nekk ay xir joon ñu fexe ba di bind ci ay mawdu xaal yoo xamante la day yitteel majaalis ndax ñu bare bëri ñàkk xam système majaalis dañuy jàpp ne sax tuxoo saar lañ fa jàng man maa ngi fàttaliku daal maa rek benn bis ma génn di muraaja foofu ci yokk bi benn waa ñëw nuyu ma ñu jàmmante mën a fa jànge mën a fii laa jànge mu ne li nga fi jàngee est-ce li nga fi jàngee xam-xam yu ñuul xam-xam yu ñuul loolu xam-xam xam yu ñuul lañu jàng fii mu mel ne bari na ay moromam loolu ñàkk xam la ndax nit lu mu xamul rek gis na tamit ne état bi tam war naa fexe ba jagleel majalis benn mabla benn sob ci biir sëy bi ndax nee nañ ñeent fu 40 pour cent 40 pour cent ñu ko jox yor wàllum jàng jàngale ba léegi majalis faras dal bi xadir xëy na bu dee yenn ñi nga xamante ne yenn daara yi loolu ba léegi ñu ngi jàmbat majalis moom gisuma sax moom ñu boole leen ci xamu da koo jàppee école franco arabe da ko jàppee xamu daara lañ jàpp majalis gis nañ ko gis naa tamit turuxu suufi yi ñu fexe ba tamit di tabax ay majalis internat yoo xamante ne day nekk yoo xamante ne day ubbiku doomi askan yëpp man di fa jàng comme ni ko si Muntaxa defee lu am solo la même daayira yi itam daayira daayira yi ak munazzamaat al xayriya ñu fexe ba di leen di ya di leen encouragé investir ci wàllu majalis comme ni ko fondation Mame Diarra defee feet jaar Porokhane ñu fexe ba tabax ay daara majalis yoo xam ne gratuit la nekk internat loolu lu war am sa comme ni ñu defee ay daara moderne yaakaar naa kon majalis moderne war na am gis nañ gis naa tamit benn xalaat mooy fexe ba crédit yi ñu fexe ba am benn rapport ba moo leen tënk ñu fexe ba njàngale mag ñi wàllu majaalis ñu gën koo sauvegarder bu ñu ko defoon dana yii ñuy ragal yéen tayaaraat mën nañu yéen sën dina am njàngale mag ñi gën a euh, gis nañ tamit ñenn ñu jàng ci majaalis boo waxee ci wàllum wàllum réforme rek xëy na dañuy jàpp ne dangaa bëgg indi lu bees déedéet. majaal setal moom ci lañ génnee kenn gënuñu koo bëgg mais ba sañoon lépp lu koy jëmale kanam mu jëm mu jëm kanam comme ni système yëpp jëmee kanam ñu fenn ñu fexe ba am infita ubbeeku ci wàllu innovation yu bees innovation yu bees da jël bu fekkee baax na nga jël ba nga teg ko fële comme la waajo waxoon ataxturuuna rajulan an yaqula bi la ndax di ngeen rey Moussa mii Moussa mii li wax diglu leen ko bu baaxee ngeen jël ko bu baaxoon ngeen mañ ko diglu nañ jël bu baaxee tey la xam bu baaxul ñu bañ ko jël même tamit gis naa ñi jàngale ci majaalis seen waajur yi ñaare amuñu alaaxaat lu leen lënkale di xàcc na di dóorloo ñi jàng nasaraan dangay gis ñu naan association des parents d'élèves aw talaami am am ay nit ñëw di xool seen doom yi wenn nekkee lañ nekk lan mooy jëmal njàng mi sëriñ bi leen jàng est-ce am na jafe-jafe mais loolu lépp gisaguma ko ci majaalis kon daal loolu daal laa amoon ci li ma indi woon koo wax naan fii ànd ngeen di jëglu bu baax a baax nag ci lépp loo xamante ne jub na ci xam sante suñu borom lépp lu ci dënk xam ne matu doomu aadama suñ ci baax daa wax lam solo jamono bu naqaree ci lu jamono bu soppi ko ci lu naqaru du yàlla na ngeen sopp ànd ak moom bi nu ko defu rek dana jaar ci seen kaw te du ngeen ci man dara asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نوميني مباكي في داو ييب دي سي جيتال سيغ الحاج مباكي جخاتي ديكو نيانال سون بوروم ياغال كو في لول داي كات وير دي جاجي فال بو باخ مباكي تيو ييب دي سانت بو باخ سيرين مودو سيك تي وقتام ام سولو ييغا خامني ديف muy waxtaan woo xam ne moom jërul commentaire ndax commentaire na boppam euh, wax yu am solo loo xam ci majalis Touba mu indi ko fi laataa loolu mu jiital dugg islam ci Sénégal ak turux suufiya yi ak langue arabe te yooyu ñooy yi nga xam ne ñoo fondement kon majalis mu joxe ci ay majalis yoo xam ne jiitu woon nañ lu ne ba pir kokki ak yeneen loolu xam naa duñ ci sori ndax leeral na ci leeral goo xam ne jàpp naa ko delluwaat ci li mu waxoon rek danga ko seetlu ndax muy waxtaan bu am solo boo xam ne li ma koy dénk moom mooy mu tasaare téere bi ñëpp man cee jariñ muy majalis yoo xam ne yi jiitu woon mu wax ne euh, liggéey nañ liggéey bu rëy loolu sax moo tax ñun ñu jot léeg-léeg li ñu jotloo ci mbir dañ koy fàtte loolu laay wax sun suñ daar yi nga xam ne ñoo bokk waar bu ñu waxee ci wàllu tajwid ak mag ñi niñ ci ñàkke woon a jote man ne leen dañ leen leen sant bu baax a baax ndax ñoom ñoo tax bañ jot ci alxuraan ji ban mën a agsi fii ñu agsi ñoom lañ ci mën a liggéey liggéey nañ ci kon walu jang fu meuna don ci wàllu alquran ci walu majlis ñom dañ ci liggéey liggéey bu rëy ah, bu dee ci alquran gis nga bañ daan jang ijji nañ daan ijji fañ toll woon agsi nañ def nañ ko li nga xamna lang mom day gëna avancé di dem xajna ñi ngi doon wax hayin gi min til bobo da nga daan til yi bari won nañ bobo ko ma sala xam bu wax ayit gog bo gisé ci alquran nga xam gi la bu ci majlis yi tamit non la amna na wasaayil yoo xam ne lañ mom lañ yoron ndax it duñ dem ba ag nak ci wara xolal xoolaat wasaayil yooyu kon ne ko suñu modou Sekk wax xañ na léegi dañ sa dañ na wolof la wala lu melni buñ lay jàng ne alkaasikul mun bahim ne la ay ba aji wuñ yi yu lëmu yi ba nga wara a lijjanti wuñ yi wuñ yi lijjanti lëmu ba noppi nag door a xawal kon yebi yi côté bobu tamit xam naa ñu ngi noonu waaw ñu ci Modou mu wax lu am solo ci dañuy faral di jël téere yi di ko ixtikaar di ko denc ne dañ ciy tabar tabaru yenn ci téere mag ñi ñu ci bëree bëri taarif nañ lu bëree bëri waaye am na ci ñoo xam ne dañ naan duñ ko génne dañ koy denc am na ci ñoo xam ne sax seeni sët mën nañoo ñëw xool ko ko wala ndax na ñu la ci majalis yi nga xamne ñoo jitu won ak yu mujj ñëwaatit boo dee xool ni mu ko waxee ñoo bol bokk benn mën xaj bu doon dox na ko ci ne da nga doon jéem a nit ki mu nekk nit ko xam nit ko am xam-xam la nekk nitu diine bo dee xol majalis yoy jitu yoy kon mom lañ doon def yi ñëwaat tamit boobu taxawaat rek lañ boobu lañ taxaw lima ci gëna soxal moy bimu mu ci walu Touba majlis Touba mu doon lo xam kon dëkk bi loolu moo ko fondement mooy xam-xam sëriñ bi nga xam ne moo sos dëkk bi di Touba ci xam-xam la ko sos ndax li koy firndeel mooy bu ñu seetloo bu baax dañuy gis ne mu ngi tëkkoo bu baax a baax ci tere xam-xam ak ñàkk jàng xam-xam kon loolu mi ngi soññee ci xam-xam kon dëkk bi xam-xam moo ko sos bi ñu koy sosit ay majalis ay majalis ñoo fi ne woon majalis yooyu ñooy liggéey bi ko sëñ bi sos ay majalis ñoo fi ne woon kon majalis yi mooy tërlu indi sa téere ñu tëral la nga jàng majalis yooyu moo génne ñooñu nga xam ne ñoom la sëñ Modou Seck wax mooy ay sëñ Mbacke Bousso ay kilifa yi nga xam ne ay borom xam-xam lañ yëpp yooyu ñoo leen génne kon ñoom su nañu rool bu rëy rëy ci dëkk bi noonu la ko sëñ bi defe woon ak njabootam nekke woon ci ba agsiwaat ci alhaaji Mbacke Jaxate mii nga xam ne moyor majalis darul maarif ñu ñaan sun borom yagal ko fi loolu tamit ak kon ñom liggéey nañ liggéey bu reey reey taarif ay taarif yu bare bare mo ñamit bu bi la seen maam ya nekkon moy fexe ba tassara xam-xam ak def xal def ki nga xam mom lañu jangal ginaaw bu génnee fu mu doon jàngit mu nekk ab jilit bu mat bu nekk nekk borom xam-xam loolu moy seen yitté jiitaluñu won li xew loolu nag nañ wax nak da naka jang nit da ngay bëgg am xaaliss boy jang loolu lu ci lu ci fess la lo xamne ne yow miy jàng boo jàngee tasawur sixaar jawharu nafis bu xa dugal asiya légui da ngay am programme bo jël pour am bac dem defi concours nak dem jang la ji fasiyene am xaaliss loolu mom nañ ko xol loolu problème kon daa mel ne bi ñak gi ñakoon am bo dé xol ci côté baax boo dee xool ci côté baax na loolu ndax donte euh, xañ na mën nga ne ci côté am na jafe-jafe waaye ci côté baax na ci côté baax na ndax daana tax nga mën a topp nag sam jàng jàng téere yi nga xam ne moom moom nga tudd léegi ci wàllu boo demee ci wàllu tafsir boo demee ci wàllu naxwu ak yeneen yooyu yëpp daa nga ko topp nag wax dëgg ba mu jeex boo génnee ne nekk boroom xam-xam ñoom ñii ñëpp ci lañ génn ñoom suñu daam ndongo moom dama koy dégg ba mu demee libi nga xam ne ba mu àggee boroom xam-xam la ak borom xam-xam yëpp docteur loo gis ngeen bu mu àggee borom xam-xam ak ñoom suñu Moustapha ñii ñëpp gis ngeen leen kon wax dëgg yàlla loolu maanaam faaw ñu xool xam ne ñoom liggéey nañ liggéey bu rëy rëy kon li ñu doon liggéey mooy génne boroom xam-xam boo xam ne day nekk borom xam-xam waaye nekk nag ab jullit royukaay moom du day day yaru ba noppi am xam-xam ah, ci biir. li sëñ Modou Seck doon wax ci ci mawadd yi nga xam ne moom la jàng loolu rek wax dëgg nag war nañ koo xoolaat ndax am na yoo xamante ni ak siwut ci majalis bi dañuy nekk xam-xam yu am solo léegi sax moom wax dëgg euh, yëf yaa ngi sens ndax am na benn yenn xam yoo xam ne xawoon naa des ginnaaw ci ñu ko daan jàng ma majalis bi loolu it damay jàpp na sayxum bi nga xam ne moo yoroon majalis bi daa jàpp ne bu la jàngalee téere yi yéele mën nga koo liir nga xam ne da lay jox ay wasaayil pour nga mën a dem loolu tamit tayit réussir nañ ko ndax kun ko masaana jox bo noppé da ngay da ngay da ngay mëna continuer sa bop fa da ngay xéri ji da xéri ji googu nak ku xéri ji mom fo yamati si yaabu yamala si kon liggéey nañ liggéey bu rëy rëy ci yoy yooyu ci yenn matière yi nga xamanteni ni ngi proposer proposé ah, proposer bo xam taxul mu ñëmé ci lool lu ni ma lu melni français ak anglais yoy ak yàlla mu nafsi bi nga xamni boko boo bo beugé né da ngay mëna yar xam xalé bi ñëw naka ngay jëflanté ak mom yoy it wax dëgg amna solo nak ñu duggal ko ci majlis bu baax bu gën ko bàyyi xel ak it li mu xamé wax nako ci soppi yenn yoon yi nga xamé mom lañuy jaar loolu it léeg-léeg dana am solo dana am solo ba ci téré yi téré yi amna ci lo xam ñu ngi koy jang ci biir majalis majalisi ta te wax deug dang koy jang non rek ngir xam ko waye doonul lo xamanteni dang koy gisate mu jóge exemple lu melni ko walu njaam loolu ya ko yaatu la ci téere yi ak it may dolli ci ne amna yenen yu bes yo xamanteni ci walu fiqh xam nga aduna bi mom day gëna awasi di yu bari di jë di ñew ci walu koor ci walu yi nga xamni ne ngi koy jëflan jëf ci walu jël biteel ak nangam nangam yoy xam nga bo démé ci am na ci yenen téré yu bëss yo xam ne ñu ngi koy ñu ngi ci yaatal yoy téré ñu gën ko duggal ci majalis yi pour xalé bi man ko xam yoy du mëna ñaan waye mu indi yu am solo ci biir ci soppi yo xam ne mënut a ñàkk mooy jàngale par ben téré nga xam du am ay fusul manam mustafa day ñew jang tasawur si xaar légui juk ab du ñew jang bu noppé mu di ñew jang te ñoom ñaar ñoom ñëpp ñu mënoon a ànd bu ñu àndoon lan lay jur mooy day jur day jural jural xéewal kii jàngale jural leen xewal ñoom parce que ñoom ci lañuy gën a xame ndax ànd jàng ci ngay gën a xame beneen bi moom bu jàngalee benn kër ba noppi na ci waaye bu defee ci cinq minutes def ki cinq minutes noonu ma ko waxee day yëg ne def na cinquante minutes ci benn téere ci benn téere boobu noppi war a defaat yeneen nga xam ne day mujj moom day sonn sonn koo xam ne daanaka. bu noppé bu bëggé yokkal bopam sax du mën a liir dara loolu moom doy ko sax am liggéey loolu nak problème la mom fa dëgg ak lim wax né ñàkk nos nosu ci biir majalis yi nga xamné mom dal na xalé mom na jang ci dem rek yow nak ak xamam ñak xamam sa yonni wu ci ndax mën na xam mën na baña xam loolu nek na jafe-jafe ndax mom na ci ko xamne buy ñew téeram da koy jël rek roof ci poosam bu ñewé génn tek ñu jangal ko mu dem ba ci biir waxtu wam far am amul xamul ñaata waxtu la far am léeg-léeg daana ñëw ran war a jàng kii ñëw jàng si ebo dem kii ñëw jàng si ebo léegi soo xam du ñëwee day dagg ran dañuy wax dagg ran dagg day am ci biir njàng maanaam koo xam ne moom day ñëwee day fexe ba dugg fii rek ko defee bu sëñ bi jàng ba noppi mu gaaw jàng nga xam ne moom moo ñëw léegi demaat léegi am na koo ko njëkk foofu loolu xëy na dagg ran boo xam ne day am ci yëf yi loolu lépp ñàkk am moo ñu war a kon yooyu am na solo yoo xam ne indi na ko kon ñu organiser waat système bi ci xale yi ak di amal ay taqwim yooyu nga xam ne moom lañuy ñuy def ci biir leson yi ni mu ko waxee mooy xale bu jàngee ba ñëw nga xool ba xam bi démb ba xam na ko wala xamu ko bu noppee wala jaaraat ci ba ci des ba ci diir bi kon noonu ñu ko waxee loolu moo ci mën a ñàkk ba ci téere yi ak yooyu yëpp ba ci nag tawsiif li ñuy jàng man ko tawsiif boo ko jàngee ba noppi. ndax da nga gis ko xam dana jàng téere naxwu yépp xam na ko bokk la joon waye su bindon day bari lool akta ta naxwi loolu xañ na bi dama japp ne kon buy jang ñu diko jox ay mawdu an muy bind muy ñew ñu diko topal ngoy pratique yoy dana ko mëna dana ko dana doon lo xam da koy da koy dindi ba ci yeen téré yi nga xam lim ko waxee léegi nga xam day wax ci walu njaam to yo wess ba ci yeen téré yi nga xam lu melni xalin xallin mom day day jangale mom yag waxu masala ba nga japp na masala ma ba nga leer mu ne taraddud wala mu waxe wax bo xam masma masala ma ngi bëgg leer mu ne aqwaal léegi ñun buñu ñu ba xam bi moy qawlun sahih nak legi léegi ñoo seet bobu xam ber ko ci ab téré xam nak la wër ak la wër legi ñuy jang la wër rek la wër nak suñu yoon niwu ci loolu japp na ay ep ki la boo xam war nañ ko xam kon mi ngi noonu loolu mu wax ci walu sahada nak li ma ci wax legi rek moom wax deug yalla baax na ndax dafa am sama benn mbokk bo xam ne danaan yow yang ngi yor daara bi jangale ko nako ne lu may xamal ne mokkoon alquran lumay xamal ne mokkoon alquran bo ra jang legi man lo xawma fofu lan la ko raton kon war nañu xamne shahada ndax shahada limi muy rek li wara war nak seede du ma ne hamham, muy seede xam-xam ndax seede fu mu jamono mom shahada mu wut xam-xam waye wara moy xam-xam mom la wara da am ben mbokk bo xamne dafa am wa jo xamne dafa am dafa dem ba am bay bëgg a def bay bëgg a def doctorat léegi ñëw di ko laaj saxaada du suur lu muy lu muy tekki mu ne ko mooy sahaada bi nga am maanaam sahaadatu suur loo loolu la xamagul lan lay tekki mu ñëw di ko laaj te moom léegi mu def doctorat mu ne ko mooy bii nga am bii nga am mooy teg tegtalul xam-xam ndax bu xamoon bu tegtal ma xamoon lii lii baat bi doo ko laaj sahaadatu suur mooy bii nga kon yooyu yëpp yu kii la yu war a ñu war a xoolaat la kon nit ñun ci suñu bop ñu créer suñu bop ñu créer suñu bop ay sahada sahada yo xamne ñun bu fekkee nak dem nañ ba sahada yi nga xamne mom état bi tek wax deug da ngay xamne ne nit ay ngi am go xamne ni nii ci mom dara ñun ñu créer suñu bop ay sahada yo xamne dañ koy tek fo xamne woor nañu ba ni ko jox nit dañuy xamne ki amna mustawa bu ko ya yono ya yoy dana dana am solo lool kon wax deug yalla borom sayx yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo yor majaalis yi liggéey nañ liggéey bu rëy rëy ndax li koy xam xamle boo duggee ci université yii man université Amadou Bamba bi laa nekk waaye boo ci nee ñi nga xam ne ñoo jàng ci école yi ba am bac ñëw ca ak ñi nga xam dañoo jàng ci majaali majaalis yi ba dem defee sahaada dama ñëw sahaada bi ñëw ci wuute nañu lool sax wuute nañu lool lool comme yàlla ak yaay kon loolu moo lay xamal ne wax dëgg yàlla nag foofu jaar fi moom dafa baax lool kon bu fekkee ne daa am yu ñu war a modifier ñu modifier ko nag lañ amone nañ ko téye bu dëgër dëgër bis buñ ko ñaké da nañ dañuy dañuy gis yu ko sol ko kala sol dara da xamul dara kon ñu sam yoy yëpp bu baax ba ah lim waxe ci proposé yi nga xam def nako bokku ci majalis yi ñu wax deug yalla ñu yoral leen ñu ñu ñu leen financer lolit lu am solo la xamna borom xam-xam yu mag yi nga xamne ne ñoom ñoo yor yoy xani ne bàyyiwuñ ci xel waye bu dee suñ jamono yi buñ ko amé dana baax loolu fi ñu ak tabax ay majalis yo xamne ni dañ koy organiser bu baaxa baax téye fa xale bi diko jangal bam am xam-xam ñu génne ko bu do defee boo ko ndax li gëna sox moy mooy lo xamne xam amul qualité manam li nga génne ni da ko koo génne rek waaye da boo ko joxoon tey wax la won da nga xamne ki wax deug yalla li ñu ko jox yelo lolé da daanaka nax sa do nga ak it li mu wax ne fexe ba créer ab raabita boo xam ne day tënk mbooleem këri diine yi ñu xool ñu xoolaan njàng mi loole bu ñu ko mënee am wax dëgg lu baax a baax la ndax yu baree bari ñoom ñoo ko bokkule bari na lu ñu bokkule ci majaalis yooyu kon yooyu nañ fexe ba sàmm ko ndax bu muy lim téere yi boo dee xool yi ñu bokkule mu ëpp fuuf yi ñu bokkaliwut yu néew la comme yi ñu bokkaliwut yu néew la te yooyu sax mën nañ ko bokkale ndax tasawudu saxaar ñëpp ko ko mën a jàng ko mën a yenen yeneen téere yooyu yëpp naka noonu kon foofu it solo lol lol buñ ko defee yenen kuréel yu bees yi nga xam dañuy genn di indi lo xamne kenn xamu ko ñooñu danaan mëna a ak ñom kon dal sëñ Modou sek waxtaan mom moom ko jafe ci man lol waye maa lay ñaanal sun borom defal la tawfiq ta doctorat bi tege ci ta lepp euh, ak ngi ñaanal borom yagal ko fi lol damay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بكي taalibe نيلين ñu ngi leen nuyu bu baax di leen di leen dalal ci jataay bu tedd bi ñu nekk nekk ci suñu kanam sëriñ ak suñu kanam kilifa moroomi donga fas yéene ay kàddu jëme ko ci mbooleem donga yi nekkoon ci daara yi di jàng ak ñu fi nekk nii bëgg indi ay kàddu leeral ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara yi ba jóge fi seen liggéey bu rafet ak seenu farlu moo tax ñun bi ñëwee li ñu yaafuus yaafuus fekk nañ fi lu ñu mën a dëgërloo ba mën a jéem a àggale liggéey bi fenn foo xam ne nii dana ci mën a teg baaraam kon li ñu def nii lépp balaa ñu yëkkati benn kàddu dañ koy sant ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon nekkoon fi ba am fi loo xam ne nii lu ñëpp mën a teg bët la ñun bu ñëwee it fekk nañ fi lu ñu mën a teg loxo kon cant gi ci ñoom lañ koy njëkk a tàmbali li leen xamal ni seen xel dal bu baax ci daara ji mbooleen ni mu doon doxee ci jamono yi nga fay nekk li ci ëpp daa dolli ko waaye wàññikuwul mbooleem ku fi nekk sàtt yi nga xam ne moom lañu fi tëral nga di ko doxe doo ci wàññi benn fépp foo dem yaa fay sut koo xam ne ni sàtt yi ñu tëral yëpp yaa ngi koy doxe fooyam yaa fay sut li nga xam ne moom lañ fas yéenee leeral nag mooy musaabaxa yi ñu doon baaxoo def fii ci daara ji ci lañuy njëkkee dañoo baaxoo koor gi bu ñëwee comme ay dong daara lañ dañuy dajale suñu biir jël benn téere daal di tànn ci dongo yi def leen ay équipe ren amoon nañ lu toll ci juróom-ñetti équipe ñu doon jongante téere bi ñu jëloon def ko musaabaxa mooy jeexoon na fiis ngir seet kan moo ko gën a mokkal ak kan moo ko gën a dégg niñ koy defee it dañuy séddee laaj yi ci euh, laaji farixiya ak laaji fardiya ak saxaafu am na fariix yi fay nek ñet laaj day nek tari bu nopi wax maana bi dogo jall fard ya bi par kenn lay doon kenn ko lañ la jox ay beuyit nga tari ko wax maana bi dogo jàll su fekkee wax nga wax nga laaj bépp yi bindal la point su fekkee laaj bi am na lu ci des duñu la bindal dara dañuy bëgg laaj bi day mat sëkk lo ci bàyyi dara dañ la may dara lépp ngay wax ñu doog bindal soo waxul lépp duñu la bindal dara kon ku ci jàll rek wane na kon dégg nga téere bi te mokkal nga ko li nga wantaaw ko defee it équipe yi dajee nañu ay yoon yoon du jor ngeen da ñëw si yébee yoon rek dem kenn ko da ñëw ñetti yoon ba ñeenti yoon ñu xool la ba xam ca mujj ga nag ci lañuy am équipe boo xam ne nii moom mooy jël raw gàddu gi day mel ne sax ñëpp a gañe lay mel ni ñu ne nekkoon musaabaxa yi ñëpp a gañe ndax ku ci xas bokk rek gañe nga day defe ne moom mbir bu ko ñenn di xëccoo faaw am koo xam yi mooy féete kaw waaye ñu bokkoon ñëpp a gañe daara ji ñëpp am ndam ñëpp a gañe équipe bi nga xam ne moom moo jël raw gàdd gi dañ koy defoon ay tur tur wu ne équipe bu ne am tur wooy wuyoo amoon na Alpha Isoon amoon na Ababou Khadim amoon na almujtahidoon amoon na assaabixoon li xayraati amoon na gis bu xulóob amoon na pasteef yàlla dogal na nag couleur bi ñu tuddee pasteef ñoom ñoo jaraw gàddu gi ñoo gañe ci waaw gañaay lu leer sax ndax waaw ñoo gañe <laughs> ñoo gañe tey gañe gi du ci àggi ne dañoo jaar fi ñëpp jaar ba gañe dañoo siyee ba gañe équipe bi ñu doon siyeel ak jàmbaar dëgg lañ ñu ngi tudd Ahbabou Khadim ñoo demul final ñoom it ay gone ca nekk yu jàmbaare ndax li ñuy nekk nekk ay ndaw téewut ñu ñii nii benn poñe dong li ñu benn poñ kese li ñu rawee kon ku la rawee benn poñ day mel ne sens la la gañee waaye mënu la kon lii moo nekkoon musaabaxa yi yàlla dogal na bu soobee yàlla bu ñuy joxee euh, jaay sëy yi ki war a jëlal Pastef dana ñëw jël seen kado ki war a jël abaabu xadim dana ñëw jël seen kado kon loolu dañ ciy bëgg a leeralaale yéen ñi nekkoon ci daara ji di góorgóorlu di xalaat daara ji lu ko jëmale kanam ak yéen nan ngeen def ba li ngeen xam ngeen indiwaat ko ci daara ji na ngeen xam yàlla defal na leen tawféex am ngeen ay ndaw yoo xam ne nii ñu ci biir daara ji fas yéene jeexal seen dund ci bi daala ji fas yéene lépp loo xam ni dañu koy taxawal ñu taxaw ca doon def it ay muxaadaraat ci biir daala ji muxaadara it duñ jëli kenn mu ko def ay dong daara lañ li ñuy jàng xam nañ ko moo tax kenn ci daara yi lañu jël mu def aw waxtaan ñëpp diglu ko bu noppee kenn ci daara ji it def taxaliix bi ñu saafante ba beneen yoon waaye dañu woowee kenn mu ñu koy defal ndax dong daal lañ xëy bëgg nañ sax bëgg nañ ko gën a gën a yaatal mu gën a jëm kanam waaye bëgg gone yi sama classe gi ma tàmm wax ci mbooloo moo tax ñu koy jéem a yemale fii ndax bu tàmmi wax ci mbooloo bu génnee loolu dana nekk avantage bu réy boo xam ne dana tax mu gën a ñeme loolu moo waral musaabaxa yi ak tamit moo waral it euh, mu xaar daal di ñuy def ci biir euh, daara ji ginnaaw loolu amoon na ay musaabaxa yi yoo xam ne dafa génnoon dafa génnoon euh, biir daara ji ci daare kaamil amoon musaabaxa boo xam ne nii dañu faa woowoon musaabaxa par par koor la daara yu bari ña nga fa woon ñu woowoon ci daara ji ñoom i tamit ñoom téere ba ñu tànnoon pour def ko musaabaxa moom muy wax saxaat tullaab daara ji demoon ci daara ji li may leeral mooy ki nga xam ni moom moo demoon tekki gu ne moom rekk ak man mbooloo lañ tànnoon mbooloo mépp taxawoon nañ pour maa dem teewal daara ci waaye mbooloo nag faaw kenn lañ sa mën a jël kenn lañ seppi waaye amoon nañu bari ñoo xam ne taxawoon nañ ngir fas yéene dem teewal daara ji loolu dama ko leeral ñun ñu xam ne ba léegi mokkal gi ñu doon wax ñim ñor jitteel leen ñu ngi koy def ba léegi kon ñooñu kenn lañ ci jëloon yóbbu ko mu ki wax euh, fàllu si la ba mu demee it wax dëgg yàlla fay lay xam du mu sigil daara ji lool ndax mbooleem laaj bi ñu ko joxoon rek ngir di ko tontu tontu na yëpp amul benn laaj bu mu def xata cent point yoo xam ne nii dara fettu ci moom la indi daara ci loolu nag moom félicitation bu baax a baax lañ ko def di ko ndokkeel di soññ waa daara ji it ci ñu gën di mbokkal téere yi di gën a dégg li ñuy jàng ndax moo ci ëpp solo lii lépp nag li ñu ko may dëgg la ñu bàyyi di naan daara ji dafa barkeel dëgg la barkeel na waaye barkeel nag kenn du toog yaa fuus bu fekk si la barke bu nekkee ci barab danga koy sàkku doo koo am bu fa nekkee te sàkkuwoo ko yi doo ko am bu fa nekkee te ko toog ca baraba bi bu fa jugee doo la ko may danga koy sàkku sàkku gi nag mooy li sëñ bi di diglee ñu tënku ci ni ñuy jaar bay mokkal téere yi ñëpp xam nañ ko téere boo jàng bay téere bu way danga koy tari ba mu yegg bind boo jàng danga koy tari bind boo jàng da koy tari téere bu jeexee it boo sawaree da ngay jël téere bépp nga tariwaat ko bu sëkk da koo teg fii lañuy jaar ba di tari téere yi ak it di mu daara ji léegi fay lay xam du donc yu bari ñi ngi xamante ñu ngi euh, jaxasoo ñu ngi des ci daara ji di toog di toppaat di toppaat di toppaat ba daanaka dañ fi xaw a yendu lépp la ngir fas yéene dundal xam-xam lool ma naa ci jaare sant waa daara jëpp dongo yi jàngee ci daara yi suñu toll nii sant leen bu baax di leen seereel yéen ñu fi jaaroon ba jigéen fi leen seereel na am ñu fi nekk ñoo xam ne ba léegi pëstéef ba ngeen fi nekkee woon ba léegi ñu ngi ci di leen ko seereel ñu sawar lool ci jàng ñu ngi fi ñu sawar lool ci li ñëw heure ñu ngi fi ñu sawar lool ci li mokkal téere ñu ngi fi ñu sawar lool ci fas yéene tëggu ci leen sëriñ bi digal ñu fi loolu dama leen koy seeral pour yéen ñi fi jàpp demoon ba jigée fi fa nekk na seen xel dal te xam ne ñi fas yéene nekk ci lii ñu bàyyi woon fa ci lañu fas yéene nekk di topp seen i tànk di ko xenc yéen lañu roy ndax bu ñu déggee ne diw kat moom euh, am na nangam ak nangam te daay la ko amee te nii la ko amee woon ñun duñ mën lu dul xemeem loola jaar si loolu mën a am loola loolu bu ñu tuddee sëñ Bakk Abdourahmane bi moo doy misaal sëkk ci ñëpp ku ko xool roy ko da nga a àgg fi mu àgg wala sax nga àgg fu kawee li mu àgg waaw kon ñoo xam ne lii daal moo nekkoon kàddu yi nga xam ne nii façon nañ koo yëkkati fii ci daara ji di leen jéggaluwaat bu baax di jéggalu yàlla lépp loo xam ne nii jub na ci rek suñu kilifa yi ñu ko dugal ci ñoom la lu ci dëng it ki ko doon wax nit la koo xam ne nii laa ma ñuy leerul amul fasaaxa te li mu bëgg a wax xaw ma nu mu ko war a waxee ñu ngi jéggalu bu baax aaxiri daxwaana alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf bismillahi rahmani rahim mbokki jataay bi noonu di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi kilifa gu tedd gi sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate di sàkku ci mbooloo mi ñëpp wax ndoo ne sëriñ alxaaji Mbàkke Jaxate yàlla na fi yàgg te wér waaw nañ ko wax sëriñ alxaaji Mbakke jaxate yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér lii ay ay ay ay bayit la yoo xam ne ñun dongo yi nekk ci daara ji ñu doon nam nami rek doon ko jàllale bismillahi irrahmani irrahim xamidtu ilaha al arshi mursila ahmadi alayhi salatun maa salaamin musarmadi maa maa al ali wal ashaabi maa kulli taabici بنهج نبي المصطفى خير مهدي مع الآل والأصحاب مع كل تابع بنهج نبي المصطفى خير معهده أخلص نياتي لمدح معلمي تقي نقي صالح خير مقصدي أعيروني الأسماع يا معشر الورى سأنبئكم أخلاق الشيخ الممجد هو القدوة المرموق في كل جانبه هو النعمة العظمى ونغم لرعدده مريد المثال فاضل نابه كفى مرب مرق منجد مترف اليده كريم حليم عادل شيق ورع حصيف رزين الرأي مرآة روده سراج لدين الله معوال أمته شراج شعار لأهل الزهد إنذار رقده سراج لدين الله معوان أمة شعار لأهل الزهد إنذار رقده وفي عقلة التدريس فرد مقدم يعلم كل القوم بالرفق عندده يربي كبار القوم لا علم عندهم يزكى ذو أقراط بالحسب عن رديه وينزع داء الشعن من قلب طالب ويملأ صدر المرء علما بلا كده وذاك سلاء الدين قاموس دهره همام إمام نجل همزة مرصدي وفي جل يوم بين بيت ومسجد برخو وتشديد ويلقى ملبدي أيا معشر الدار المعارف هل يرى بصدق وفاء منهد مثل سيدي أيا معشر الدار المعارف هل يرى بصدق وفاء منهد مثل سيدي أب لعفاة مع شمال لمرمله وطب لأخلاق الورى عمدة هدي هو المنهل الصافي فقد لاح مفردا على قنة الأفراد أس لنهده فقد أنفع القاصي ودان بعلمه جزى الله الشيخ شيخ آس يغتي يدي يشجع أهل الدرس بالجد دائما ويوعظ بالشبان والشيب عن بدي مهيب لأهل الجور لين لمرشدي شجاع ومعطاء ملاذ ومقصدي ولو كان روح الشعر فيض عواطفي لأنشدت شعرا يخجل البدر عن يدي عسى الله أن يشفي صدوري وصدركم بأصامياء الغيب عضب مورده فيا رب عمر شيخنا بسلامة يداني به نوحا بجاه محمد وسلمه وارزق أهله خير عيشة برفعة شأن وكفهم شر مكمد فلا زال مصفاة ومفخرة أبت بجاه خديم المصطفى سبت أعمد فشكرا جزيلا يا إمام, يا إمام المعارف وخريجها شكرا يدوم مصرمدي فشكرا يزيلا يا إمام المعارف وخريجها شكرا يدوم مصرمده صلى الله على سيدنا محمد وسلم بسم الله تعالى وبركاته نيجي نوي نيب دي ندوكل نيب دي ندوكل كيلفة جتاي بي سن الله دي باكي جاخته خمنا نيكو سن مصطفى واخه Euh, xasida gi sëñ Mouhamadou mbay moo ko bind sëñ Mouhamadou mbay mu ndaw ndax daara ji daa amoon ñaari sëñ Mouhamadou Mbaye moom nag dafa nekk Casamance xam naa looloo tax maa koy maa koy jàngal xasida gi euh, am na ab muqaddima nag dama xamul ndax ma waaw euh, ma jàngaleel ko ko rek jàng lépp rek mooy wax ne talaqaytu dardashatan hatifiyatan min axi wa abi آه، الشيخ محمد مي الدقاري وتحدثنا عن شأن هذه التظاهرة المباركة وموعدها المرتقب وعليه فسألني قائلا هل من مشاركة أدبية لي فيها فأجبت عنه بالنفي تعلة عوائق زمكانية منعتني منها وشعرت بأنه لم يكن مرتاحا لجوابي عنه رغم قولي له لعلي تزورني نفحة من سماء الشعر فبحت بها الليلة ولكن ما انقطع الاتصال بيني وبينه دقائق إلا وتهيجت القريحة وأبت إلا أن تلقي كلمتها المعتادة بلغة الشعراء وإن لم أكن من أهل هذه الصنعة عبر هذه القصيدة المتوادعة الموسومة غلامة من أقصى البلاد وإليكم مستهلها من الكامل وإن لم تكتمل شكلا ومضمونا هكذا كتب أمن الجميل الصوم من أقصى البلاد عن ذكر فضل للذي نفع البلاد أمن الجميل الصوم من أقصى البلاد عن ذكر فضل للذي نفع العباد قد زود الأجيال علما نافعا عبدوا به الرحمن دوما بانقياد خبروا علوم الدين حتى استمسكوا بأصوله وفروعه نالوا الحصاد وحصادهم وحصادهم غطى الفنون جميعها عقدا وفقها ثم إحسانا مراد من كسبهم لغة اللغات بلاغة نحوا وصرفا زد عرودا ذاهيات إن كنت تبحث للمعارف مقبرا فرحا إلى كتابه دون العناد دار المعارف نقطة علمية لم يدرك أغوارها إلا النجات دار المعارف معبر الأجداد والآباء والأبنان ذلك بالتلاد وإذا نزلت رحابها تلف الذي يصغي إلى درس جديد أو معاد هذا يعيد زميله منسيه في حين ذاك محاول تثبيت ذات كي لا يطير عن القريحة مقصد من درسه عند الرحيل إلى المعاد حلقاتها قد رصعت ببرامج راعت فئات الدارسين بلا انتقاد أهدافها علمية موضوعة لبناء جيل يتقي رب العباد دستورها تكوين شخص مسلم بكلامه هندامه ذاك المزاد دستورها تكوين شخص مسلم بكلامه هندامه ذاك المزاد والقائمون على إدارة أمرها حرصوا على تحقيق أهداف تراد ولذا فهم متحمسون لسيرها خريجها سيكون رمزا في البلاد رب احفظنا الشيخ رب احفظن الشيخ حفظا كاملا كلله بالعمر الطويل المستفاد أيد سواعد من يقوم بأمرها بمحبة وحماسة وصف الوداد رب احفظن الشيخ حفظا كاملا كلله بالعمر الطويل المستفاد أيد سواعد من يقوم بأمرها بمحبة وحماسة وصف الوداد هذه قلامة من تذوق طعمها سرا وجهرا آيبين بخير ذات salaamaaleykum wa rahmatullah uh, erte jaal gën xam na dañ koy bàyyee sëñ Moustapha Diakhaté rek <laughs> ñun dañu